Pensa na Daira. Me pensa na Daira, muito que nem eu, na Aisha. Sama kursan gok. Sincèrement, ma malaga nam nak. Da de crime rek lay live li. Te atenção, dama ko wañi de. Dam, ñenn ñu baax, nga xam ne ñoo jàpp di ma bàpp, di ma bàpp, di ma bàpp. ne ma daal minuit bi dafa ëpp eh waaw sama arbitre baa ngi egsi na ah, Aïda Badji moom moo xoj de si coulisse yi ne ma acca ñëwal yàgg na e Alaaji Zengisto ah kii moom moom la du ma leen ko présenté xam ngeen ko xam ngeen sama lan la sama sama lépp la <laughs> mais ziar naa bu baax a baax Jibril Saaxo Asmalik Jaw Jaw eh Asmalik Jaw yow war nañu waxtaan de maa ngi lay ziar bu baax sëñ Madiop j'espère que yéen ngi si jàmm alhamdulilah gis nga dafa mel ni xaw nañu gëj a live tuuti et donc c' était lié à à beaucoup de choses yu ñu doon dox yi nga xam ne daal ñu ngi ci woon temps yi yëpp euh, euh, sëñ Thiam sëñ Aliou ah sëñ euh, sama sëriñ ñëw na nag eh Alxaaji Moussa Balla <laughs> Moussa ziar naa la da coono ba lépp jàmm. Aaron euh, yaay woo fii soxna faa mm, macha allah Machallah. c'est vrai que tey moom il faut ñu ñëwaat rek parce que déjà on avait commencé waxtaan ci euh, mbiru axiru zaman n'est-ce pas wax ci déjà waaw Moussa loolu serait une très bonne idée euh, serait une très bonne idée il faut qu'on parle de de yow maa ngi maa ngi commencé naa xool sa kii bi live bi donc, euh, sur les programmes, sur le plan. Donc, euh, j'ai pas encore terminé. Mais machallah, euh, félicitations en tout cas. fait bi rafetna. bi rafetna, machallah. Et eh, il ah Seda. Ah, qui c'est la grande mystique machallah mère Awa mais kan sur le CFA on a un débat ay combats ñu la teg sur sur sur le franc CFA incha allah rabbi naa naa naa naa la woo inbox incha allah ñu waxtaan incha allah rabbi donc euh, Ibrahima Diallo ah Ibrahima Diallo nee na thème bi ça donc euh, waaw thème bi nag temps yi moom ñu bëri ñu ma ci woo di ma di ma koj di ma mais yow bu ñu fontoo ñëwal suñu live bi nangam ak nangam donc euh, c'est vrai ah. comme la fois passée, je vais je vais encore essayer de euh, jéem a jéem a un peu waxtan bi bu baña nek waxtan euh, waxtaan werante parce que bon taxu taxu jox jóg macha allah sëñ goor wa wax deug na tay mom sincèrement jafena sincèrement temps dafa am dafa am kenn ki nga xam ne daf ma kidnappé donc euh, euh dina dina staan li sax dina ko dégg. dina dégg li may wax xam ne daf maa kidnappé moo tax temps yi moom parce que jafe naa nag mais mais incha allah après dañuy jokkoo incha allah dañuy waxtaan donc je disais que euh, nekkul mbiru werante nous sommes pas dans une dynamique euh, xëccoo wala xuloo wala wala wala ñaayoo donc il se trouve juste que comment dirais-je euh, dafa mel ni message la il se trouve juste que islam dafa am ay déggin yu bëri déjà yonent bi saa sam wax si xadis ne inna li kulli aayatin zahira wa batina nga zahiratan wa batina tan gis nga de donc aaya bu nekk am na zahir am na batin nagam nag aaya bu nekk am na zahir am na batin rawat na nag ahadis yonent bi saa sam nga xam ne moom moo wax ne addabani rabbi wa ahsana taadibi yàlla moo ma yar sama yar donc eh mr Mo Max ah gars yi ñëw nañ de ñoom Kefret Bao ah les grands daan nag dugg si nañ nag instant xam naa ne moom du yomb donc yoon bi saay sama yàlla moo ko yaral boppam te képp ku la yar tëbb la ay jikko ak ay melo yàlla daf ko tëbb ay jikkoom ak ay melokaanam donc ala kuli xaal donc ay waxam moom tamit mënul nekk nag mënul nekk ay wax yi nga xam ne ko jël à la légère donc xadis boobu sax yemul sax ci ci zaahir wa baatin mu ne xaddan wa matla am na tamit xadd am na li nga xam ne limite supérieure bi nga xam wax mënul dépasser loolu waaye matla am na tamit lenn li nga xam ne mooy li suufee li nga xam ne mooy le plancher bi nga xam ne moom la ñu war a déggee wax bi mu ne ila sab'ati abturin jusqu'à sept niveaux ésotériques yi nga xam ne ñu ngi dans chaque parole xam kon déjà kon werante ci kii lu mu wax du lii kii lii la euh, am kon dans la umma donc il y a des entendements divers et variés donc à chacun fi mu ci toll soxna faa ñu ngi lay reziar di la begué euh, di kontaan ci yow donc étant donné que nag y a des niveaux variés et multiples en tout cas d'entendement kon sincèrement sa euh, warul nekk débat wu ay ay xulóog ay ŋaayoo donc euh, je loolu moo taxoon il fallait que ñu leerlaat loolu la fois passée nag c'est vrai que y a eu beaucoup de retours par rapport a au live bu ñu defoon par rapport à Dajjal donc on a bien parlé du système de Dajjal maanaam système bi nga xam ne daaw nañu gisee ni mooy Dajjal de manière abstraite bi nga xam ne moo jiitu jëmm ji war a génn fenn may Dajjal donc Dajjal googu euh, son système maanaam xaalam dafay jiitu jëmmam safara balaa mu lay lakk. su lay commencé jege da ngay commencé sentir chaleur balaa mu lay laal bu la laalee nag dafay yàq dafay dafay dafay dafay góomal sa der dajaal noonu lañ ko jàppee rek euh, il est occulté actuellement feeñagul ci jëmm waaye son euh, système am xaalam ak ay mawaaridam maanaam si flux commencé na déjà di walangaan ci askan wi te mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dugg déjà si nga xam ne euh, ñooñu ñooy ay représentants am ndax euh, ni yàlla amee ay ay amee un système gouvernemental am am yàlla am na ki nga xam ne mooy xutbu zamaan nga xam ne mooy le chef suprême jamono bi ci kaw suuf moo ilif àdduna bi moom la yàlla dénk suuf si maanaam mooy naaibu yonent bi sallallahu alayhi si jamono xutbu zamaan boobu nga xam ne ba tey mooy xutbul xutbul axtaab mooy fadul jaami yaa beaucoup de noms yu ko gaa yi jox il est par des axtaab ay xutbu yu bëri yi nga xam ne tamit ils sont sur cette terre yàlla xam na leen yàlla leen nëbb donc euh, yàlla yàlla tas seeni barke xutbu yooyu tamit am ay assistants yu ay abdal donc ay abdal abdal yi nag ñoom tamit ils sont très puissants ay xutbu lañu ils ont am nañu mën-mënu xutbu yi am nañu tasrif am nañu maqaama kun am nañu lu bëree bëri donc yàlla dafa am dafa am kiyam dafa am comment dirais-je euh, état major am n'est-ce pas donc euh, loolu di wàcc di wàcc di wàcc ba ci wàllu simple yi noonu tam le seytaan tamit amee tam son ordre donc ordre seytaan moom tamit mu ngi dox tam ci kaw suuf amna na nga xam ne kooku mooy le représentant de Satan sur terre instant yi kooku lépp luy yak ak ñaaw-ñaaw mo koy doxal donc kon mawaarit yoy ak flux yoy nga xam mu ngi ko ci dajal donte feeñagul ci jëm di ex kaw suuf mu ngi mu ngi tabbi ci ñi nga xam ñoy ay nitam ñok fi taxawal ñoy war ko doxalal euh, mission di ko yombalal mission bala moo yegg si di ko defar di ko baleel le chemin avant son arrivée donc on avait vu que dajal on avait beaucoup parlé de dajal donc euh, et Moussa Musa, masyaallah, ki mom sama ki sama directeur la sama professeur la waaw ah, jëm ju baax ngi ni sëñ Musa Ndoy. ñu ngi lay ziar bu baaxa baax donc euh, masyaallah. Uh, eh, Abdoul Ndiadé ziar na lu baax naka wa États-Unis eh mama Fall <laughs> mama yow sax bëggoon naa lu ma sax bind bala may commencé mais boo ko ñëw nga alhamdullah. donc système bo nga xamné kon ce système qui tente aujourd'hui à éliminer les spécificités individuelles Euh, système bi qui va prendre la place de Dieu euh, a déjà déjà son système au niveau micro les républiques parce que la république euh, dafa mujj nekk yàlla di daganal di au nom d'une souveraineté nationale bi le peuple et ce peuple là wax il faut république dafa woroo ak Je vais chaque fois exemple Sénégal 95% des de musulmans sont fi mais la république elle s'est proclamée laïque et la république elle ne reconnaît pas les cultes en réalité même pourrait dee koy proclamer constitution soo euh julit amul possibilité de man kat sama dîner islam da dama bëgg ñu atté ma sama l'islam su ba démé tribunal non amo possibilité bi euh, le tribunal est elle est monocaméral, en fait c'est une loi qui est là que pour ceux xamé xam ne amuñu amuñu amuñu amuñu et ce qui n'était pas normal donc la république là euh, déjà dafa jël lu bëré bëri ci walu diine république yoy nak on va les agréger au niveau euh, macro parce qu'il y a une entreprise de gouvernance mondiale bi xam ne soo xoolee ba si ñoom euh, ñu te sax ñoom Rockefeller bu muy maye euh, siège au ONU ba ñuy taxawal SDN ak histoire ONU fan la bàyyee ko di nga xam ni c'est des loges yi xam ne si sont retrouvés nekkat ah dañoo war a taxawal dara nga xam il faut ñu am un contrôle absolu et exclusif sur l'ensemble de l'humanité donc nga gis ni kon euh, ce système mondialisé là dina dem ba instant bi xam ne elle va éliminer les républiques là elle va éliminer les instances régionales yi nga xam ne se créent elle va éliminer les instances continentales elle va créer une gouvernance mondiale aujourd'hui sur le plan monétaire tu vois le Khalis c'est aujourd'hui aujourd'hui faut les euh, en Suisse donc déjà il y a mën ak katan bi xamé euh, la BRIC, la banque des règlements internationaux Il y ko ci kaw banque centrale les banques centrales yi qui ont proclamé leur indépendance dans tous les pays fii suñu banque ñu sax dans la dans la zone UMOA, la BCAO, e qui euh, traité bu mujj bi mu beaucoup en 2005, mais elle est en vigueur en 2010. La Banque centrale, dans son article 4, proclame son indépendance par rapport au pouvoir politique. Parce que le président est donc, mais pourtant, cette banque-là, elle suit la règle des recommandations et des règles prudentielles. La BRI, la Banque des règlements internationaux, donc il y a une gouvernance mondiale qui va se faire, sur un point de vue politique, sur un point de vue euh, militaire. Il y a, on a vu avec l'ONU et le Conseil de sécurité, qui se prend actuellement pour le gendarme du monde moo décider gérer toute la sécurité au niveau du monde am possibilité ingérer nous, qu'on c'est un système bien, on va l'affiner deux mille il faut comprendre a baax et Moussa Moussa les lay Mansour ah après parce que a des choses à à à a donc et ah yaa ngi nii daal waaw yow après on se on se reprend léegi hmm, Mado Malick maa ngi lay ziar bu baax donc nga gis ni kon dajjal boobu kon on l'avait identifié comme étant un système euh, je vais dire mondialisant et, et mondialisé qui tentera de gouverner à la place de Dieu ndax buñ demee ba egg si ki nga xam ne day am possibilité daganal lu yàlla araamal tu le vois ici au Sénégal daganal nañu prostitution pourtant yàlla daf ko araamal daganal nañu vin ak bière pourtant yàlla daf ko araamal donc euh, su amee une entité qui est capable daganal lu yàlla tere ba pare tere lu yàlla daganal kooku jël na place su yàlla c'est-à-dire que kooku on est en train d'organiser euh, le carton rouge de Dieu sur les affaires terrestres et pourtant alxuraan dafa waxoon ne huwa allazi fi samaai ilaahu ba fil ardi ilaahu yàlla mooy yàlla ci kaw suuf kaw asamaan waaye yàlla mooy yàlla ci kaw suuf mooy yàlla ci kaw asamaan mooy lépp li nga xam ne dafa dafa dépasse suñu volonté ñu mën ko nangul ni yàlla moo koy administrer moo ñuy doxal moo ñuy defar moo ñuy ilif moo ñuy moo ñuy administration vie va ci wàllu souf tamit mo ñu wara tamit comment on doit fonctionner il faut simplement croire xanaa que yalla il n'a pas un projet de société fekkee ni pour ni bëgg a jël yàlla teg ko de côté na yalla ñu ko affaire mais on on pouvait pas parler de Dajjal simplement en ignorant euh, yeneen aspects yi eschatologique qui tourne autour de Dajjal je voulais parler de yajuj et majuj moy Gok et Magok. c'est présent aussi dans la Bible n'est-ce pas donc Gok et Magok. Donc, euh, on voulait parler aussi de ce qu'on appelle Al-Jassasa, l'espion. On voulait parler aussi de ce qu'on appelle Ad-Daba, n'est-ce pas Ad-Daba, mais la bête qui doit sortir de la terre. On devait aussi parler de Al-Masih Dajjal. Euh, Al-Masih Dajjal, Masih Isa ibn Maryam euh, qui doit revenir. L'IEP, ce sont des faits qui sont intimement liés et qui s'enchaînent. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons à l'avance. Chaque fois, une donc euh, am nañu eh, de sama sët la Djalagi. Djalagi, Jalagi maa ngi lay ziar Daouda Diallo ziar naa bu baax a baax Abdoulaye Sylla euh, Maodo Malick le grand receveur donc euh, la laa si avènement l'ère de la monnaie numérique et l'apogée d'Israël comme signe du règne de Dajjal oui euh, dañoo bokk ci biir yoom li si ñëwaat après sax la monnaie numérique elle va elle va être mondiale maa ngi waxee paas ne leen le système aujourd'hui de Bretton Woods elle est née système monétaire boobu nag dafa juddu 1776 mooy année bi le règne de Dajjal a commencé dans le dollar américain on a mis on a bel et bien mis euh, le novus ordo securum, le nouvel nouvel ordre pour les siècles à venir et on l'a daté 1766, n'est-ce pas année boobu elle n'est pas fortuite c'est l'année bi nga selon les économistes de paille mooy l'année bu le libéralisme en tout cas ce qu'on appelle le capitalisme avec l'apparition de l'ouvrage de de Adam Smith euh, le père de l'économie contemporaine n'est-ce pas Donc 1776, euh, on sait que le programme était sur trois siècles, il n'y a qu'à voir le dollar et sa disposition pour nous comprendre les trois parties du dollar, n'est-ce pas Avec euh, la pyramide détachée, avec, euh, voilà, avec, comment dirais-je Nico, on avait parlé passé sur ça, on avait un peu fait un briefing par rapport au, des pions sur l'échiquier, n'est-ce pas Donc, 1776, bon, le début du capitalisme. Euh, 1866, c'est une année que tout le monde connaît euh, par rapport aux crises qu'on a provoquées dans toute l'Europe. La crise économique, 1870 1879, là, mais pic d'or en 1876, n'est-ce pas? Donc, euh, 1866, euh, perturbation capitaliste yu a Europe la euh, encore en 1976 il a un siècle un siècle hein. là 1976 on a aboli le système avec les accords de Jamaïque on a aboli ce qu'on appelle le système euh, de Bretton Woods, qui était basé après la Seconde Guerre mondiale sur un système d'étalon change or, n'est-ce pas Donc, 1966, euh, euh, système de change flottant universalisé pour tout le monde. C'est-à-dire que les monnaies aujourd'hui, depuis 1966, ne sont basées sur rien. C'est-à-dire que les ni le mais elles n'ont pas de valeur. Il n'y a pas de sous-jacent derrière, ce n'est pas une représentation d'une créance qu'on a au niveau de la Banque centrale. Il y aurait tel morceau de Banque centrale en or, c'est fini en 1966. Et là, le coup de grâce, que c'est modeste. Ce sera en 2076. Aujourd'hui déjà, on a vu la naissance, depuis les années 2000, la naissance de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc Dash, les monnaies Dash, litcoin le Bitcoin euh, Ethereum euh, lii naa si def ben spécial parce que dama au Sénégal les gens ne comprennent pas carrément ce que c'est que les les crypto-monnaies Quand ils sont dans les monnaies papier les options tous les instruments de la finance ils sont très très méconnus ici au Sénégal naa là est spécial par rapport à ça mais d'après l'année 2066 sera une année bien ramée. les 300 ans n'est mat pas, n'est-ce pas donc euh, machallah, elle euh, euh, la pax judaïca parce que Israël actuellement en train d'être préparé par rapport à la construction du troisième temple par rapport à... Il y' a beaucoup de choses qui xam intimement lié à ça et mais aujourd'hui il s'agira de revenir un peu sur Gog et Magog parce que ça fait parler ça fait nous bëri je dis que loolu richesse la une dafa wax ne ixtilaafu ummati yi ci baadul masail xanaa la ñuy wax mu ne rahmatun donc dafa nekk yërmande qu'on ait des divergences sur des sujets donc on doit avoir des divergences sur des sujets on doit pas voir la même manière donc ñu euh, ngi may wax démba wala barki démba kenn may wax ne ma qu'est-ce que tu penses de Cheikh Imran Hussein ma ko c'est un c'est un c'est un éminent intellectuel de l'islam ku ñu war a ku ñuy la man en tout cas ku may la wax parce que dafa am vision am lucidité bu bu surprenant par rapport aux savants de notre temps il xam ne ñu ngi taxaw ci dit qaala rasulullah ils n'ont vraiment pas du tout compris n'est-ce pas donc euh, moom il trouve que Gog et Magog euh, c'est les occidentaux maanaam l'empire de l'OTAN États-Unis et ses alliés ak Russie ñoom nee na ñaar bi lii mooy Gog et Magog maanaam Yaajuuj ak Maajuuj ñaar yi la donc suñu delloo ci alquran euh, parce que nous faut chaque fois ñuy am référence bu ñu war dellu alxuraan mo ñu wax nañu euh, fa in tanaza'tum fi shay'in fa rudduhu ila allahi wa rasul donc on est obligé kon bu ñu une divergence sur une chose donc euh, on on doit on doit aller on doit retourner dans le Coran si Yalla ak ci yonent bi ci yalla yonent bi le Coran yonent bi la tradition moy les hadiths donc on se doit d'aller là-bas nous ressourcer pour voir les objets de divergence qu'on qu'on a donc euh, beaucoup de gens ils considèrent Gog et Magog comme des peuples hein. euh, déjà chez les arabes médiévaux, euh, dans tout le Moyen Âge pas ne bi pas si c'est sont les Mongols Magog c'est comme les Chinois etc. donc ils vont envahir le monde donc on a toujours vu l'Asie l'autre Asie Asie côté comme une menace pour l'Arabie et l'Europe occidentale. Et là, c'est une vision, c'est une vision euh, eurocentriste une vision bien, mais l'Europe est le centre de gravité du monde ce qui n'est pas vrai donc ce qui n'est pas vrai l'Europe n'est pas le centre de gravité de ce monde là l'Europe au contraire est dans une phase de déclin et est dans si ñëw le système mondial système monétaire mondial avec euh, la fin de l'euro parce que l'euro va mourir hein. je développe ça dans l'ouvrage Moumoudjedef. Un euh, Un ouvrage euh, je vais faire un peu de je vais un peu de un peu de un peu de pub donc dans cet ouvrage là qui traite d'argent donc, euh, qui s'appelle La Révolution de l'argent. Donc, c'est un ouvrage qui est traité euh, sur l'argent en général, mais surtout beaucoup plus sur le CFA. Donc, euh, j'explique un peu des, la mort, en tout cas, programmée de l'euro, et donc l'avènement, en tout cas, d'un système monétaire international nouveau. Obligatoirement, de faire. Il nous faut aujourd'hui prendre nos devants pour mener vous Parce que nous, nous avons une chance. Nous, euh, sallallahu alayhi wa nous mettre, nous à l'avance ce qui va se passer. Nous tolloo ñu même niveau d'information que les autres war ñu ay max <laughs> les américains les mexicains donc euh, <laughs> les mexicains kay imam non Moussa yow dama lay yónnee sa bos yow kay moom fàttali ma suba je te fais parvenir le tien donc euh, soxna euh, c'est combien de pages c'est deux pages à peu près donc c'est 250 pages, hein. je vais dire 248 euh, pages, hein, Inch'Allah. Donc, euh, donc non, non, je vais, te l'envoyer. L'olmom, c'est clair. Baba Dien Laïdjar, il est à Richard, par voie postale, Inch'Allah. Donc, euh, euh, comme ça, Donc je disais que donc il y aura un ordre monétaire nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes monétaires ne sont pas sur rien. un système de change purement flottant. Le dollar, euh, euh, l'euro, ils, ils subissent des fluctuations qui sont déraisonnables, qui sont, pas, qui sont économiquement non justifiées. C'est juste une décision monétaire, l'autorité en charge de la gestion monétaire, en l'occurrence les banques centrales, ils disent, je veux, ma, monnaie, je la donne telle valeur. Et puis je, je, m'engage à respecter cette valeur-là. Donc, euh, pour dire que donc, Gok et Magok, mais il y a de bëri na si ay coow man damay dellu si alxuraan pour xool benn mbir xoolal alxuraan euh, baatu yaajuj ak maajuj si ñaari aaya res la ko yàlla andi n'est-ce pas donc euh, deux aaya yaajuj ak maajuj boobu damay wax sax ni maa ngi si préparé préparé naa si benn bind ba pare sax bi nga xam ne bind boobu tamit mu ngi ñëw yàggul am man dama am temps damay bind rek nag <laughs> donc euh, ceux qui jouent les païens qui jouent à la contradiction avec Dieu ndax dañoo am dafa am ñi nga xam ne ñoo bind livre mais alxuraan dafa am ay fautes de grammaire donc ils ont révélé ils ont retenu 26 ou wala 27 fautes yi nga xam ne neen fautes yooyu yàlla def fautes donc alxuraan bi kon c' une œuvre humaine étant donné que Mohammed sallallahu alayhi wasallam est un illettré bi xamé jangul ce qui est faux tamit ce que je refuse yonent yàlla Mouhammad sallallahu alayhi wasallam sallam pas un illettré donc un illettré mais quelqu'un bi xamé qui ne sait qui ne sait pas lire des lettres yonent sallallahu alayhi wasallam, il a lu les lettres célestes lettres yi mu lire doomu adama mënu ko tek beut il a lu sur la table gardée ñu wax mahfouz il a lu sur cette table là donc ce c'est pas un illettré donc suñu waxee né nabil ummi parce que baat de ça prête à équivoque on dit que y a une sat qu'on appelle satul ummi allahumma salli ala sayyidina muhammadin euh, nabil ummi yi Ali, ala ali et cetera abdika wa Nabil rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallam donc nabil ummi le prophète des illettrés et fait renvoi aux arabes les arabes n'avaient pas de, de livre ils avaient l'écriture parce que rappelez-vous avant l'islam du feu si kaw kaaba gi nga xam ne kaaba gi benn lieu de débauche la woon lieu saay-saay la woon ba pare lieu de lieu de pour ay pour ay yàlla la woon y avait ce qu'on appelait les muallaqat muallaqat yi on avait mis là-bas des poèmes c'était des des des des vers qui qui étaient euh, vraiment formidables euh, de ce qu'on appelle la période pré-islamique période période bi ñuy ak jahiliya donc période boobu y avait eu beaucoup de euh, beaucoup de comment dirais-je de poètes qui avaient écrit des poèmes yoo ko ne ko lonkoon ci kaw kaaba gi ñoom Imrul Qays et cetera ñoom ñooñu ñëpp a avaient écrit gars ñoo jëloon seen biir yi nag euh, taf ko ci kaw kaaba gi donc ya avait l'écriture à la Mecque avant yonent bi sallallahu alayhi mais y avait jamais eu de livre compilé bu ñu teg ne lii c'est livre musul am avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc il faut comprendre que le premier livre compilé euh, c'est le Coran bu njëkk bind assemblé ko teg ko chez les arabes c'est le Coran et l'ensemble des règles aujourd'hui il il y a ne ñuy sukkandiku ci naxwu ci sarf ci balaax ci mantique. maanaam toutes ces sciences là la grammaire la sémantique euh, la la la comment dirais-je euh, la poésie on les a tirées en réalité du Coran donc dire que ce Coran là a des fautes ça doit nous faire rire n'est-ce pas le Coran a trois types de genres dans le singulier le duel et le pluriel donc aay yi yàlla wax nag fam benn aay bu yàlla di wax dafa ne inna yaajuj wa maajuj mu ne euh, mufsiduuna maanaam euh, mufsiduna c'est-à-dire que ils vont semer la corruption parce que yaajuj ak maajuj ils sont identifiés comme deux entités qui doivent semer le bordel sur terre rappelez-vous dans le dans Baqara yalla il disait que la tufsidu fil ardi ba'd islahiha ne semez pas le bordel bu leen yàq sama suuf si que on l'avait déjà restauré c'est-à-dire qu'on on a restauré euh, comment dirais-je, on a restauré la terre. Mais là, là ici, là, il est dérangeant, là. Ça, Wadi, on n'est pas là pour, pour planer. Donc, je te bloque là, Donc, euh, qu'est-ce que je disais Il y a toujours des Indiens hein, qui, qui, qui découlent de partout. Donc, euh, euh donc Dieu avait dit que donc, Bounou, Bounou semait le bordel parce que la terre a été restaurée. Quelle est la restauration de la terre Les Juifs parlent de la première alliance avec euh, Jérusalem, la deuxième alliance avec euh, la famille d'Abraham, etc. Nous, sommes alliance pour nous c'est l'alliance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. il nous a appelé à qayyim il nous a appelé à la religion vraie à la euh, en fait à la à la à la religion droite il nous a appelé à la vérité et que alliance au dañu am ak suñu borom subhanahu donc mbir mi noonu la demee léegi euh, ñoom dañoo ne comme que yàlla dafa ne mufsiduuna il a utilisé un pluriel donc pluriel boobu yàlla utilisé ñoom dañoo jàpp ne yàlla dafa def faute ndax il devait dire Mufsidani, parce que on a on a pris deux entités Yaajuuj Maajuuj donc comme que deux entités la ñuy wax moom ñoom dañoo gis ni ils ont ils ont déclaré ça une faute hein, ci yàlla ne Mufsidani, moo correct et non mufsiduuna et honnêtement ils ont totalement tort. Moi, j'ai répertorié ces 25 fautes-là, bon, 26, mais j'ai répertorié dans un chapitre que j'ai fait, euh, c'est c'est le livre que, qui, qui, est à apparaître, Inch'Allah, donc euh, qui traite du soufisme. Et dans ce livre-là, je montre que ces gens-là qui, qui, qui, tirent des fautes à Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, ils n'ont pas fautes en réalité parce qu'ils n'ont pas compris l'essence des mots. Parce que a et Mahjouj, ce n'est pas de l'arabe. C'est ça le premier problème. Dans le Coran, il y a des mots qui ne sont pas d'origine arabe. Il faut comprendre aussi la sémantique des mots. Euh, quelqu'un bi nga des mots des langues je vais dire orientales en général que ça soit le perse qui est actuellement la langue la langue en Iran l'iranien euh, que ça soit le hébreu nga xam euh, l'araméen l'acadien et le nabatéen cinq cinq langues ni ñii ñoo famille ne de famille ils sont pas vraiment lointains du sumérien antique donc et on dans le syriaque bien qui est parlé c'est une langue qui est parlée dans quelques régions de la Palestine et on parle syriaque n'est-ce pas Donc, euh, ces langues-là, il est important de savoir que il y a eu des, il y a eu des, la révélation a respecté le, le, le, la, la, le fait la communauté. Elle a respecté, euh, elle, a, elle a donné des, des moyens, mais moyens beaucoup de cosano arabe. La preuve, vous verrez que euh, même euh, du temps du prophète sallallahu aïe de sallam, Watch, n'est-ce pas Aïe de doon Watch, euh, yonent bi sallallahu alayhi tout sallam toog saaba yi ne leen euh, lan lan li, lan lay tekki gars ne ko kat allah wa rasuluhu alam yalla ak yonentam ñoo xam pourtant sécuriser ça c'était des arabes hein bu ñu fàtte loolu ñu sahaba yoy ay arabes de souche lañu arab lañ ci papa ci yaay ci mam ci mama ci maamaati mam. mais ils ont compris que la la traduction du Coran n'est pas liée à la langue arabe amna une lumière bi nga xam lumière bobu le prophète la fi et lumière bobu moy mën wax deug deug mal maal muraadullahi tabaraka wa taala ci ci aayaat yooyu maanaam lan moy nam nam yalla ci aaya ba mu mu n'est-ce pas c'est très important lii donc yaajuuj ak maajuuj déjà ñaari baat yi ñun dañu gis déjà c'est des pluriels donc nous étant donné que c'est des pluriels deux pluriels euh, vraiment le le le le le nombre pluriel la donc mufsiduuna bo ni on trouve ça éminemment correct au contraire sax ne serait une faute donc le problème qui se pose moy xam lan moy yaaj ak lan moy maaj donc ñaar yi ni mooy problème donc moi je reviens avec euh, une compréhension à toi peut-être qui va sembler bizarre pour certains mais bon c'est on l'assume c'est notre laissez-nous faire des erreurs c'est notre compréhension on va les défendre on va les justifier inchallah qu'on euh, bëgg d'accord monaco d'accord qu'on bëggul d'accord c'est son droit le plus absolu parce que Dom Adamaï, demain euh, ay ay ils sont réfléchis et que si ñooy échange le degré di donc en arabe classique, on va dire que Yadjoud et Ma'juj, ben c'est un nom actif, ben c'est un nom passif. En arabe classique. Sauf que le mot n'est pas arabe. Donc, euh, la Bible énonce plutôt même Gog et Magog. Donc, euh, dans une optique un peu différente. N'oublions pas que euh, y a beaucoup de choses, on l'a, si mais bataille, desna. Et Abdou Baye Sankare, ziar na la bu la donc euh, profil Marcelo dégg Gog et Magog euh, suufiyanke yu bëri dañ ci waxtaan ci ñaari peuplades yi nga xam ne dañoo jàpp ni peuple yi nga xam ne euh, parce que yéen sasam moo ko si hadis ne Zulqarnayn te histoire Zulqarnayn la mu ngi si biir sotul kaaf la sotul kaaf au passage euh, elle a des vertus chaque vendredi képp koy jàng chaque vendredi elle aura de la lumière muy benn il y aura de la rémission de péché muy deux euh, dinañ ko musal ci ay tentation l'antéchrist nee naa sànq Massirou Dajjal même bu dee jëmmam ñëwagul ses effets commencent déjà en par onde mu commencé wal ci kaw suuf donc je vous le conseille vivement mais il faut tamit qu'on soit conséquent et sérieux bu dee qu'on dit Cyrus de wala qu'on dit comment tu donnes doon le la baat bi ñu bëri sax d'accord ñu kan la c'est quel prophète en tout cas c'est un prophète parce que Karnen », le mot en tant que tel signifie Zulqarnayn signifie celui qui a deux cornes maanaam le bicornu parce que carne signifie corne mais Qarn aussi signifie siècle. C'est quelqu'un peut-être qui a vécu entre deux siècles. Ça signifie quoi Il faut dire que dans l'islam, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui où il y a une divergence. Il y a des écoles. kenn ku nekk ak fi mu bokk ak li mu gëm jàpp ne ah man man lii laa gën a gëm ki ne ah non man dafa mel ne comme tarixa yi ki ne ah man non man murit laa man daal sama sama li ma gisee sama dox ci yàlla man dox boobu mu ngi méngoo ak Cheikh Ahmadou Bamba kii ne man non sama dox boobu ak maam li maam laay la méngool ku nekk te loolu c'est des droits taxul def lu bon ñëpp ku nekk dafa war a am vision et c'est ça la richesse la la umma donc comme que Zulqarnayn moom moo dox ba fekkee fu naaj bi di jógee et loolu c'est une allégorie c'est une allégorie maa ngi gis ay imam di ko firi naan dafa dox c'est pas vrai doxul ba fekk fu naaj bi fu tuddee doxul tam ba fekk fu naaj bi tëddee c'est une allégorie c'est une c'est une c'est une métaphore bu yàlla utiliser am na lu muy woowee foofu naaj ndax yàlla ay naaj yu bëri la am dafa am ay naaj yu bëri bëri bëri bëri donc euh, euh, Alexandre le Grand yéefar la woon doomu Philippe de Macédoine mënul nekk Zulqarnayn Jalaay kan effectivement gis naa imam yu bëri nañ c'est Ixandar euh, la parce que Alexandre le Grand les les arabes l'appelaient Ixandar al akbar maanaam Alexandre le Grand kooku c'est le fils de Philippe de Macédoine boo demee dans la Bible dans le premier livre des Maccabées on explique son histoire Mangi vais son histoire man à travers l'histoire des monnaies supranationales avec euh, l'empire qu'il avait créé et ses héritiers comme Antiochos IV et Antiochos VII qui avaient compris, qui avaient mis en tout cas ce qu'on appelle le shkel. Donc, euh, mais euh, Aïssan le Grand, ce n'est pas Zulkarnain. Donc, euh, nous ça. Mamadou Mamadou. Donc, euh, Salih aussi, ah, c'est Mangi mangue de mangue de Donc, Zulkarnain dinañ si ñëwaat après peut-être euh, naa gën a expliquer parce que moi j'ai fait des recherches sur Kërneen donc euh, naa dañu waxtaan pourquoi le la séparer Sane le Grand c'est pas le sujet actuellement du débat donc dox na ba fekk peuple bi nga xam ne mënuñoo wax wala dégguñu wax euh, peuple yooyu mu demal fekk benn peuple bi nga xam ne ñu ngi dugg ñu ngi dëkk si wetu benn peuple leen doon lor ñu laaj ko ñaan ko pour mu tabaxal leen benn benn benn mur pour musal leen ci peuplade yooyu nga xam ne mooy zul mooy Yaajuuj ak Maajuuj yaa ngi dégg bu baax lii alxuraan ko wax de li c'est le Coran et les hadiths hein, lii c'est pas notre avis donc il avait il avait fait amener ce qu'on appelle l'érin, de l'érin fondu New Af New Africa ziar la bu baax il a demandé à ce que gars yi soufflé ko au diggante deux montagnes pour mu créer un mur diggante moom ak diggante waa adduna bi ñun waa dëkk bi ak euh, peuple boobu waaw ma question est la suivante bu dee Zulqarnain a pu construire un mur sur cette terre là fil ardi fil al ard la fil la du fi sama du fi du ma ma baynahuma fil ardi la s'il a pu construire un mur fil ardi baynana wa baynahum wa baynahuma entre nous et ces deux peuplades là mais pourquoi actuellement personne ne cherche ce mur là où est ce mur personne ne le cherche personne n'est en train de chercher ce mur là parce que ce mur là n'existe pas il est tombé depuis longtemps <laughs> n'est-ce pas donc mur qu'on ñu ko waral lijjanti yëpp mooy ñuy dox ci wàllu maanaam ñuy dox sur le monde invisible parce que on parle souvent de deux peuples yi nga xam ne mooy ba dem jabul ak il a vu des peuples yi nga qui n'étaient pas du tout réellement humains c'est là-bas où je disais entre parenthèses à ma passe leen aadama amoon na yeneen soxna te am na yeneen njaboot yu bokkut ak njaboot yu am ak awa mooy ñun ni nous les terriens et loolu j'ai parlé des géants j'ai parlé de beaucoup de choses yoo xam ne ngi live bien passé peut-être ku mu soxla mën na dem xoolaat ko mais il faut nous revenir que Yaajuuj ak Maajuuj euh, ils ont écrit ils ont écrit donc euh, Caucase oui effectivement donc euh, ils ont dit que peuplade ils étaient grands ils avaient des oreilles d'éléphant c'est éléphant euh, les Ils comme des nains donc lii qui l'ont dit qui ont eu à voir ces créatures là dans ce qu'on appelle le monde invisible euh, Madame ñoom gis nañ ko ci bir xaybu ndax avons bu ñu fàttali doomu kaw dafa am dimension dafa am dimension et ak dimension mawatin al mawatin c'est le monde visible hein, dans lequel nous vivons aujourd'hui Puis euh, il al insan maanaam naas al les animaux euh, oh, a la partie visible mais dans la dimension qu'on appelle al raib, le monde invisible, Fof, il y a des comment dirais des entités qui ne sont pas humains qui sont pas qui n'ont pas le corps dense manam des gens abstraits mais peut-être qu'ils peuvent rester invisibles euh, et les djinns jinne yi bok, bokk euh, rawxaan c'est du bokk les khuddam, les nangam ak nangam am nañu boole foofu nag yaajuj ak maajuj ji gis si benn entité lañ ci biir ils n'ont pas tort donc euh, ils n'ont pas tort hein? mais nous on l'aborde nous sous un angle léegi euh, li yàlla expliqué yëpp li yonent bi sasam jàngal ñu si ay hadis ni que les musulmans se feront face à l'armée une armée byzantine ils vont prendre Constantinople Constantinople dañ koy jël n'est-ce pas du ca yam euh, yaa jëkk maaj yu après ñu génn ndaxte ñoom euh, yaa jëkk maaj ji la Tibériade ñoo la mère la Tibération ñoom ñoo ko naan nañ ba mu jeex li yëpp ay ay wax la mais dañoo gëm ni ñun un, ce sont des métaphores que le prophète a utilisées avec sa communauté. Tout comme Isa salam utilisait ces métaphores-là euh, avec sa communauté, di am lu muy junj maanaam la lu ñuy wax euh, al isharatu di wax ni arab al isharatu taati liman akal aqal n'est-ce pas euh, taati liman akal aqal euh, maanaam junj nen borom xel sama gars yi noonu laa ñëwaat si aadama léegi may ma yeggal rek ma yeggal si yàgg def maa juus ndax bëri ma laal gu ma ko sax donc euh, pour notre part yonent bi sasam ni mu jàngalee yaaru jëkk Maajuur yëpp comme étant deux peuplades wala boog deux entités très très dévastatrice. maanaam yàqkat nar a yàq lépp lu nekk ci kaw suuf yàq la civilisation humaine en un rien de temps temps bu gàtt la ñuy def ils vont parcourir l'ensemble du monde euh, dafa bëri ay détails yu yonent bi sasam jàngalee yëpp yi nga xam ne on a répertorié une presque centaine de hadiths. yoo xam ne ci ëpp nag waa asxaabu suufa waa ahlu suufa ñoo ko andi ahlu suufa ñooy ñan ahlu suufa euh, ñooy nu tëdd sax euh, comment dirais-je ahlu suufa mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy saaba yi xam ne yonent bi mooy waxoon leen bu leen liggéeyi toog leen fii maa ngi ameel seen lekk donc ñooñu ñooy premier sufiyanke pour ñi nga xam ne ñu ngi bañ tasawuf ñooñu ñooy premier sufiyanke yi nga xam ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la donc ñooñu yonent bi mooy doon jox ñu lekk si lu mu am day andi ñoom ñu bokk ils étaient presque une soixantaine ils ne travaillaient pas

n'est-ce pas bu leen bàyyi mu euh, ta sax yuriduna wajhahu yàlla mu leen seetal mu ne yuriduna wajhahu yad'una rabbahum euh, suba ak ngoon mu ne waaye yuriduna wajhahu wala ta'du ay naaka anhum tuddu seen raxas dunia yaa ngi yonent bi tere ne ko ne te détourne pas de ces gens là parce que ni ils sont excellents ñooñu nak ñoo wooye les gens du bain ahlu suufa bañ na wax sax ba soufa bobu tasawuf bi ñu wax tey ñu bëri ñoo jàpp ni originam am mooy suufa boobu mooy le ban parce que c'était toujours dans le si ban boobu si biir jumaa bi la nekkoon donc euh, gars yi naan suufiyanke am na jàpp ni suufa mooy mu ngi jóge si safa safa qui signifie pureté mooy des gens qui ont qui ont cultivé leur pureté à travers le zikr gars yi ni nii mooy tasawuf am jàppatee suufa sax ça vient de laine de coton donc euh, ndax il se il se il s'habillait de manière vraiment pauvre maanaam très très ñu ñu xaw a wàcc daal maanaam bëgguñu àdduna quel que soit alpha ñett yi en tout cas ben la ci raison ak ci cause yi xam qu'on a identifié sur l'origine ce qu'on appelle at tasawuf Le tasawuf maanaam donc euh, voilà centaine de hadith yooyu ñun on a on a vu deux choses yi xam ne moom laa bëgg partage ak yéen par rapport rek Yaajuuj ak Maajuuj al à ce moment ma parce qu'on avait déjà parlé des médias internet télé libre, donc euh, mu tout ce qui est information chaque instant donc nous, on avait identifié le comme état comme étant cela n'est-ce pas donc euh, manhajul fi notre école wallahi ah, Abdou Baye wallahi azim Masha'Allah li wax la Euh, ñetti maqamaat la am yoo xam maqaamaat ad diin as salaasa al islaam summa al imaan summa al ihsaan al ihsaan bi nag mooy njolloxtaani diine bi tasawuf foofu la nekk parce que moom mooy place su ñu wax al xaqiqatu donc euh, macha allah suñu diine nag dafa dafa laaj dafa on doit communiquer bu baax ci wàllu googu pour doomu aadama yi mën a lever yenn préjugés yi ak yenn appréhension yi dégg nga benn xarit donc euh, mu ne ma. Euh, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se diviser en 73 sectes donc effectivement tu as raison hadis la yonent bi moo ko dire. avant boobu nag dafa ne woon nag euh, Moussa divisé en 71 sectes Ben, kese moo si dugg àjjana 70 sectes. safar lañ dem xeetu Insa divise dina divisé en 72 sectes donc Ben, moo si dugg àjjana 71 yëpp en enfer Moi, sama xeet nag man dina divisé en 73 sectes Ben, baay dugg àjjana 72 sectes en enfer je vois des wahhabites aujourd'hui qui parlent de ces 72-là comme étant des tariqa. Et ils se trompent, les tariqas sont dépassés 900. Il y a 980 et quelques tariqas répertoriés aujourd'hui dans le monde. Donc, si vous donc les 72 yooyu ay yi là non non dañoo war comprendre bu bien, bien, réponse à bi mu surtout le ahzab la sourate les coalisés C'est la surat la sourate 33 du Coran nest ce pas dans cette surat là il y a 73 versets Il y lu bëri lu fay jàngal li nga pour am lecture maarifa ku am ah wax dëgg yàlla dem xool histoire boobu dina comprendre bu baax de de quoi le prophète parle mais il parle pas de tarixa yi turux yi nekk si kaw suuf si kaw jamono ay wasail la ilallahi tabaraka wa taala ce sont des voies pour faire parvenir les gens à leur seigneur donc tarixa yi jaamuwuñu leen ce sont des moyens pour accéder à notre seigneur par rapport à notre rythme par rapport à nos objectifs ndax diine bi dafa am benn universalité mais dans la diversité donc siraatal mustaqim moo yaatu rek waaye ñun ñëpp ñu ngi siraatal mustaqim toutes les turux nag la wax يسوع سلاس الله مستقيم دخل نيو أم ديجل ببايكو خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ يجي سب موي خادر موي تجار موي نيب كوسنا كسر جم ولا خنلا يوين تسلا سلام لا جفن تل نا واتي مومن نا جوه دونك موسي غاي أندي خاجك سن دونك نيو نو سمدي سلف نيو نيب أي سلف لنيو سلف سلف موي سنو موي سنو موي سنو موي سنو كير أي سلفيس لنيو دونك تاريخ يجي نيو سلفيس أوتانتيجي نا سلف. ce sont les prédécesseurs rek mooy les trois premiers siècles de l'islam ñu ñooy salafi donc ñu ñooñu jàngal ñu topp dëgg-dëgg jàngale authentique yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ci zikr di doxal di def tabarruk di def euh, di def euh, voilà macha allah bañ a di yuuxu bañ a di condamné waate bañ a nekk ñu intolérant bañ a bañ a dugaate ay safara ñii ñoo nekkoon salaf yi xalaf yi nag ñu mujjee ni mooy ñi nga xam ne ils sont intolérants ils les gens ils se mettent à la place de Dieu ils veulent juger les gens ci ak donc nous sommes nous on se reconnaît pas par rapport à ces gens là donc euh, MashaAllah Donc donc vais revenir encore sur Ya'juj et Qu'est-ce que on le voit comme ñaari choses mais ils sont pluriels Dans ñaa sens pluriel yajl, ils sont pluriels, qui est irrégulier en donc ak Maaj qui est un singulier mais pluriellement am ñu gis si ñun c'est deux menaces Alaaji Lord ah sama jarbaat la moom ah ñoom Amadou Seck Boye ah ça c'est le grand panafricaniste c'est le grand ak El Hadj Diop maa ngi bu baax a baax donc euh, ñu gis ni kon euh, ñaari ordre yuy dévaster doomu aadama la yuy yàqaate yu nar a yàqal insaaniya yàq jamono sonal doomu aadama yi te mën na la jóge si ñaari ordre yoo xam ne dafa différent dès le surtout à Rahman, tu verras que Dieu interpelle 31 fois les deux communautés, à savoir les, les djinns et les nits. Fabi ayi ala et rabbikuma kaziban. N'est-ce pas? Fabi ayi ala et rabbikuma tukaziban. Son gis nga de xalaf dara baaxu si sont les derniers te xalaf yi jamono bi ñoo fi nekk di bi donc nous reconnaissons chez les salaf nous sommes tolérants nous ne voulons pas juger les gens nous faisons nos péchés Nous sommes juum ñu ngi ñu ngi ñu ngi jugaat taxaw ñu ngi di ci borom bi ñu ngi ñëpp ku nekk nous sommes une communauté bi su nous avons échoué donc la mentalité des musulmans des premières heures ils aimaient pas la euh, distinction ils voulaient pas ils voulaient tous être un ndax euh, wax Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens disait unum Hmm? nous sommes tous un outraake unum donc euh, lu doy waar la donc kon nag yàlla mu ngi naan fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaani kazzibaani moom vous verrez que c'est un duel donc on parle à deux communautés les humains et les djinns n'est-ce pas ñu gis nag ñun dafa am ay jàqa jafe-jafe yoo xam ne si yaajuuj yi yaajuuj yi dañoo gis ni euh, mooy bàyyeekoo si doo si jinne yi mooy liy jóge si jinne yi loraange yi bàyyeekoo si jinn yi maajuuj yi mooy loraange yi xam ñu ngi bàyyi ko si doomu aadama itam naa si ñëw ñi yëpp ils sont pluriels ñu ngi si bi plus ñuy dem ci aaxiru zaman maanaam les temps derniers y aura beaucoup d'attaques yoo xam qui vont venir de ce qu'on appelle le monde invisible aalamul Il y aura beaucoup de choses yoo xam ne dina dal doomu aadama yi doomu aadama yi commencé sonn di commencé di dof commencé jékki-jékki di problématique parce qu'ils sont possédés par des entités yoo qu'on ne voit pas donc vous verrez que ay mbiru jinne rab plus on va avancer dafa nar a gën a takkarnaase dafa nar a gën bëri c'est des invasions yoo xam qui viendront du monde invisible n'est-ce pas donc loolu moom c'est quelque chose bi nga on doit y prendre euh, wala nga ci bàyyi xel pour deux raisons primo les humains aujourd'hui ne respectent plus la nature dañuy doxal nu leen neexee ci kaw suuf y avait des espaces yi nga xam ne euh, mindaa fon yu nekkoon a on a tout gâché dans notre quête ci wàllu xaalis alxal xaal nee na sax alhaakumu takaasur ñu ngi daw ñun vers la course de richesse di gas di yàq ay terre dindi ay forêt ñu ngi yàq lu nekk te loolu dafa nar a am ay répercussions dans nos vies muy benn waaye ñaar respecté tuñu sax léegi ay waxtu on marché tous les heures heure bu ñu neex la ñuy dox te mun na heure yi nga xam ne nous nous nous vivons en en alternativement maanaam ñaari ordre ñoo dëkkandoo ci kaw terre yàlla ne woon seen Alxuraan euh, dafa sàq bëccëg pour ngeen dox seen ay seen ay soxla sàq guddi pour ngeen noppalu parce que guddi mag yi sax doon wax ni mag guddi am na borom. aujourd'hui nous respectons tout on se on se protège. tout protégé tuñu nous protection la oui bien sûr une protection Il nous ak une protection la une protection Il faut euh, a protection donc euh, mais nous ne pouvons pas talatu sax que on a plus le temps pour suñu Nous Nous Nous nous ne defatuñu tahsin maam yoo wax ay tahsin mooy des vestes de protection comme yonent bi sallallahu alayhi wa il le faisait chaque jour matin et soir mais fii ñun sunna yonent bi sallallahu alayhi lu bëri ñun xamuñu ko intéressé wu sax doomu aadama yi dafa mel ni jamono plus ñuy avancé yonent bi commence à devenir un étranger dans sa communauté nit yi sax ñuy gën a fan les héritiers du prophète que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam et loolu dama gis ñun tarixa yi xam nga soo xoolee Sénégal contexte Sénégal tarixa yi ñoo andi islam Sénégal maanaam l'islam l'islam au Sénégal il est conférique nous avons un modèle islamique qui est différent du modèle saoudien et du modèle iranien. Le modèle saoudien est un modèle wahhabite. On connaît le wahhabisme. Elle ne, fait pas partie du salafisme. Madame Salafie, wahhabisme, beaucoup de Donc, on connaît le modèle chiite. Il ne sied pas à la culture sénégalaise. Mais celui islamique, il est conférique. N'est-ce pas Donc, il est bon et important. Nous avons eu boîte, n'est-ce pas Nous avons eu boîte, n'est-ce pas ndaxte aujourd'hui attaque yooyu mu ngi bëri njolloor école yi dama ci xam dara day am ay écoles yi nga xam ne mais c'est extrêmement grave xale yi jékki-jékki di daanu ay rab famille yu bëri fii en Afrique noire ils avaient des totems c'est une réalité culturelle ah li may wax nii du problème mu Maadio c'est une réalité culturelle famille bu nekk amoon na ay mbiram famille ñu si bëri jamono bi jeunes yu bëri xamatuñu seen mbiru famille yi am na si nga xam ne ils ont été intégrés dans ces choses là man dama gis nag on doit pas faire de pacte avec le diable man ay biiru rab moom gëwuma ko dunduma ko mais ce sont des faits qui existent yoo xam ne ko war a bàyyi xel on dit pas di croire mais on dit dañ ci war a bàyyi xel bu jaree muslu nga muslu bu jaree moytu nga moytu ndax am na famille yoo xam ne ils sont obligés ñoo war a samp ñuy wax samp samp mooy dellu seen ay cosaan seen origine fi ñu defar seen ay cumbukaay nga dem fa nga rey dara rey bi nag tekkul ngay rey di di di yàlla non mais da ngay rey pour honorer li nga xam ne sa ay ayel ñoo ko contracté woon à ton nom lii c'est une réalité ça existe donc xanaa du ma du ma si sori mais on voit tamit ce qu'on appelle ay chaks chaks ute na lool ute na lool ak jinne euh, ay entités la yoo xam ne ay mbindeef lañ yu yàlla bind yoo xam ne ils vivent chez les chez les êtres vivants yoon ci yàlla Iisaa boo jàngee histoire am boo jàngee histoire am di nga gis yoon ci yàlla Iisaa laax de di nga gis si biir histoire am euh, kooku nga xam ne c'est des mauvais esprits ñoo ko jàppoon mauvais esprits yooyu mooy chaxs bokkut ak jinne il l'avait possédé mais ñooñu obligatoirement il va falloir ñu vivre dans quelque chose qu'est-ce que le prophète Insa a fait daf leen joxoñ am lu mu ñaan ak lu mu wax mu génnee ko ci waa ji mu yóbbu ko chez dans des ports ci ay mbaam la dugal esprit yooyu mauvais esprit yooyu donc il y a des anticorps qui peuvent entrer chez des êtres humains ba pare di leen jëflu maa ngi koy chaque fois te loolu chaque fois je le répète dama ne yi am na fi jamono bi ñi xam ne ñu ngi leen di àtte ne dañoo xaru et c'est pas vrai xaruwuñu nit gis na nit mu jug taxaw yéeg ba ci kaw benn immeuble ñëpp xool ko mu taxawal pam ba pare tëbalopam tëbalopam daanu mais loolu ça suffit quoi ñëpp ne ndeysaan ki daa xaru fekk astafurlaa xaruwul il n'était pas il ne bénéficie pas de son esprit dafa am ku ko posté yéegal ko di nga ba muy yéegee ba ci kaw ba kooku tëb la ba mu nekk di tëb

di ko bañ loo jàpp di ko bañ loo alxuraan di ko bëgg dugloo chaque fois si biir douche yi si ay toilettes ay salté fa lay bëgg di lekkee fa lay bëgg toog di dugg ay deux heures temps mi yëpp c'est des signes yoo xam ñu bëgg loolu dañ dem lijjanti ay kilifa yoo xam ne ci loolu la ñuy dox maanaam ku am sama su ma contacté mën naa ko dox ci loolu man doxuma ci xam naa ñu si dox te ñooñu ñu maandu lañ donc lii yëpp di daal doomu aadama doomu aadama boobu il n'est pas sain d'esprit li c'est les effets des yaaj maanaam ñenn si yaaj yi ñuy wax chaque donc attention donc attention à nu ñuy attee d'homme. aadama yi naan kii dafa xaru ki nangam ki mo ray nangam te fek yalla xam na ni euh, il n'y est pour rien il a été possédé en dehors de ça en dehors de ça euh, mais nit mu ngi am ay andado yi xam lolu loolu bokkut ak chaque bu dëkk séram andado bi nga dafa am ay effets yu muy def ci yow. exemple may joxe rek moy xolal sur la terre manam dans les dans l'atmosphère si si ci kaw jaww ji y a des couples d'étoiles, yi nga couple couple de planètes yoo xam ne tant que planète bi su jegee bii rek dafay jouer sur son champ électromagnétique dafay jouer sur son champ électromagnétique parce que dafa ko jege dafa am mbindi fi xam ne leen yàlla di bind bind leen pour ñu jege ñu n'est-ce pas je parle pas des ifrites ils ont d'autres noms ay ay altaxash ay je tur yi peut-être dafa ñàng naa choqué ñu bëri jàllu may tudd ay tur mais c'est des c'est des êtres yoo xam ne qui ont été créés pour ne pas vivre avec les hommes ils vivent en haute mer îles yi ba yàlla di bind île au début de l'humanité les îles étaient créées pour loolu n'est-ce pas

donc te fekk feebar boobu soo demee hôpital kenn du gis si yow dara parce que dëkkaaleeg ay anti yi nga xam ne sa biir kër anti yooyu ils transmettent des ondes yi nga xam ne ondes yooyu elles sont négatives elles créent de la maladie moo tax attention nous ne sommes pas seuls sur cette terre là il faut ñu comprendre bu baax a baax enjeux yi menaces yi ak yii yëpp nga xam ne mu ngi am jamono bi et yëpp mu ngi si biir yaajuuj yi et ils vont être croissants dañ nar a gën a yokku dañ nar a gën a yokku bu yeboo nañ delluwaat ci sunna yonent bi salaay salaam bu yeboo nañ delluwaat ci jàng ay taxsin ci muslu ci jéem a purifier suñu kër bañ a tooñ ci balaa ñuy tuxu ñu dem seetlu kër yi ñuy tuxu ndax kër yooyu amuñu fa jiitu amuñu fa dëkk ndax euh, am na kër yi xam ne dafa am borom ba pare te ils sont pas prêts à abandonner duñ fa bàyyi duñ ko bàyyil doomu aadama yi donc loolu muy benn euh, maajuuj yi là ce sont des actes qui dérivent de l'humanité donc pas ce sont des actes qui dérivent de l'humanité Mister Madjé ah Madjé kay fa nga dugg yow Madjé kay moom eh, y a un expert qui est là Madjé moom expert euh, en tout ce qui est occultisme la donc xam naa ni bëri seen xam ngeen ko vous le suivez bu baax a baax très pertinent très percutant macha allah xanaa di ko ñaan rek yàlla defal ko tawfiix ak taysiir bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam donc waaw macha allah ak ñoom Bachir waaw Bachir moom daan la moom ñoom Daouda Diallo donc je disais kon maajuj yooyu nekk ay mbir yi nga xam ne ay yu doy waar la dama si joxe exemple xool exemple adduna bi fu mu toll maanaam. Euh, nouvel ordre mondial bien nga les lucifériens rek maçons yi ñep ñoo dox ci lool rek euh, li doxal ci kaw bi mais luy galancor euh, dama projet ARP donc projet ARP ah Abdoulaye Ba man français français français parce que ñu français donc projet ARP donc high frequency xaw ma active Oréal je sais pas lan euh, euh, je je jàppatuma tur bi euh, au niveau c'est un projet américain bi nga xam ne ils ont ils ont repris ça depuis 2015 xam ngeen ni ce projet là dem na ba bëgg agir dans ce qu'on appelle la haute atmosphère maanaam li ñuy wax l'ionosphère dans l'ionosphère foofu mooy couche bi nga xam ne couche atmosphérique bi nga xam ne couche boobu et Bachir Eh, was yi waaw al waswas ñoom ñooy yàqal doomu aadama yi seen walu julli seen jaamu yalla julli ak jaamu yalla lañuy lañuy lañuy yakalaté donc waswas moy ki nga xam mo lay gëmlo sa bir julli da nga waxo li wala wax nga li da la gëmlo ni da nga da nga ngelawal wala lo c'est que dila dila dila was dila dila jik jaxalo pour yak sa ibadat mindee foofu lañuy woyé was-was ñoom tamit ñu danger lañu ñuy ñuy jaxase dit lañu ba yobbu nit des fois niveau yi nga xam sa da fay perdre xelam n'est-ce pas euh, pour nous tax ça, Ndiade Ndiade, Souleymane Thierno Souleymane Bal n'était pas dans une confrérie bokkul si benn tarixa mook Abdel Kader y a ñaar école de Pire étaient parti de Pire pour faire la révolution la révolution dans le Damga Damga moi actuellement Matam n'est-ce pas donc la révolution Torodo donc en 1776 donc ils n'étaient pas dans des confréries donc euh, on dit jamono boobu sax wax dëgg yàlla mouridisme xew gu fi woon tarixa xaadir bëree fi carrément ndax 1776 soo xoolee at boobu nga xam ni à Saint-Louis il y avait la Khadria la Tijane n'était pas encore vraiment là c'était pas encore donc il y avait pas beaucoup de tarikh, quoi sincèrement donc donc dans le Diallo exactement les wax dëgg dans le biir dollar lépp wax nañ ci lépp mais Abdoul Ndiaye tarixa yi sax ñu tam le Coran et le sunna kese lañ nekk loolu moom naa c'est ñëwaat Coran et le sunna kese fi nekk c'est fi wax leen da nga réer Coran le sunna kese fi nekk tarixa yi li ñuy c'est yëpp mu ngi si Coran ak sunna génn ko bu ko génnee ay njubte la donc waruñu topp kenn ci lu alquran ak sunna donc euh, nga gis ni kon projet arf boobu jamono bi ñu sommes dans un jamono bi 2000, D'ici 2100, d' ici deux mille gis ne dëkk mën attaquer beneen dëkk sans pour autant yàq dëkk bi la guerre mondiale la guerre mondiale la guerre euh, sa sax ay armes armes chimiques ak armes biologiques ko on la on l'a dépassé n'est-ce pas on le prend dañuy jël Euh, provoquer des choses naturelles. Aujourd'hui, l'humanité instant est capable de, de contrôler ce qu'on appelle la haute atmosphère. Les pluies, taw déjà, taw. Ablaye, bon finir, amoun israélien, amoun ben projet, israélien, j'en ai ablaye, ay stimulateur de pluie. Taw instant, si vous voulez créer, on la crée. Xamgen lolu. Dis moi, je vous apprends rien de neuf. C'est des pistes dossiers, il y a il y a un type de nuage. nuages. On a presque plus de 20 types de nuages. Il y a des nuages qu'on appelle les cumulonimbus. Donc, les nuages, ils sont d'or, c'est, ils ont des taw. Xamgen lolu xam nga ni séisme pour créer ko aujourd'hui il y a des zones yoo xam y a des degrés de d'onde yoo xam ne euh, bu ko dóoree sur le sol dafay créer directement un déplacement de couche tectonique donc te loolu dafay créer séisme donc aujourd'hui il euh, y a beaucoup de choses yoo xam ne on le crée maanaam ñu ngi koy woowee catastrophe naturelle c'est pas des catastrophes naturelles des tempêtes ak des tsunamis on peut les créer léegi sur avec des zones électromagnétiques maanaam le champ magnétique terrestre xam nga le champ magnétique terrestre déjà chaque euh, je vais dire je vais dire combien, chaque 200 000 ans, il y a une inversion des pôles. c'est de, la de, de la géographie, hein? c'est de la géophysique, n'est-ce pas Donc, euh, il y a une inversion des pôles chaque 200 000 ans. Et là, le champ magnétique terrestre est un monde qui est affaibli de grand Sur Mars, il n'y a plus de champ magnétique. le champ magnétique terrestre c'est un bouclier qui est préservé s'il y y une une tempête solaire il y rayon infrarouge rayon nga il ne n'est-ce pas vous le savez donc aujourd'hui avec des ondes avec des ions avec un langage purement magnétique. On peut créer des séismes, on peut créer des tsunamis, on peut créer des tempêtes. Beaucoup de choses qui ont sont mais je ne sais pas naturel. dama ko gëm ah sama sama xaat lay wax nag mun naa am et eh, doyen Bakar qui ah, est nag sama doyen waaju baax kii moom Sénégal dama ne kenn gënu ko nit ku jar a nga nii nit ku baax nga nii donc was-was yi euh, doyen on disait simplement que was-was moy, mooy euh, yenn xeetu mbindeef la bokkut ak ay jinne

sur l'ensemble des choses naturelles, on peut y agir aujourd'hui. Sachez-le, le projet ARP est terminé depuis longtemps, n'est-ce pas Donc, euh, ils peuvent jouer dans l'esprit des gens. On peut te faire ça, penser des choses. Parce que la pensée, en quelque sorte, c'est quoi C'est des zones, hein? c'est des zones, c'est des, des influences que les neurones transmettent. On peut jouer sur ça, on peut les transmettre, ces zones-là, pour nous faire bien chose. Il y a eu des précédents aux États-Unis, où il y a, des, il y a, il y a, il y a, il y parce qu'on les a manipulés sur l'esprit esprit pour faire des produits et donc, suñ entre les mains de de d' Ni gars par force produits donc attention on peut manipuler aujourd'hui l'esprit n'est-ce pas on peut le manipuler donc euh, catastrophe naturelle yu bëri New wax naturelle ce ne sont pas les catastrophes naturelles et on va à l'avenir non, on va t'attaquer naturellement ba tu des des là, la nature s'est déchaînée dis-le, yàlla moo a le ndeysaan ci yàlla le yàlla le la dara waaw fekk yàlla le dara donc on peut jouer sur l'esprit de la personne on peut la manipuler donc euh, li mom ma jee naa naa si dugal léegi incha nga ñëw nga wax ci n'est-ce pas donc pour dire que euh, aujourd'hui egg nañ fofu mais yemuñu Il y a ce qu'on appelle les H plus H plus yi xam naa ne xam ngeen ko mooy les transhumanistes ils ont ñoom dañoo japp ni ils doivent améliorer l'humanité vous vous rendez compte hein c'est que ils veulent place dañu bëgg jël place yu yàlla dañu bëgg jël place bëgg def lu ëpp lu yàlla deful c'est-à-dire que nit au début c'était affaire de euh, ah machallah euh, imam mon professeur c'est le neuromarketing euh, ils ont dit que au début ils veulent mettre la technologie et la science au service du bien-être humain c'est-à-dire comment gérer les, cellules des comment dire avec la cellule souche cellule souche ça c'est la cellule bi actuellement man études ma gis yu des biologistes ils réfléchissent sur la cellule souche parce que la cellule souche est, est une réponse et le remettre contre les cancers, le vieillissement et la mort même. ils veulent jouer sur ça. Mais les H, les transhumanistes, ils veulent mettre aujourd'hui euh, la, technologie et la science au service de l'humain. Ils veulent améliorer l'homme. Euh, dans ses organes vitaux et dans ses fonctions de base, ils veulent améliorer l'homme. un homme 2.0. Il faut comprendre que c'est projet yak bi donc dans les majouts, nga les faits des humains pour y àdduna bi je trouve que l'industrie pharmaceutique l'industrie d'armement, avec la science et la technologie parce que c'est un pluriel pluriel mooy que def na trois choses au moins ñett nous au service de majouts, nous ñi accélérer la décadence de l'humanité l'humanité va va directement merci kanam vers la déshumanisation de ce tout avec l'intelligence artificielle avec toutes ces découvertes là effectivement ce sont des découvertes ce sont des avancées lu c'est salutaire quand l'homme est conscient et a une certaine morale. Mais un homme, quand il est amoral, quand il n'a plus de principe, il n'a pas de foi. wax nit science technologie musiba science technologie fait accélérer la décadence de l'humanité n'est-ce pas da koy accélérer donc euh, il faut lui battre ci xel bu l'armement aujourd'hui l'armement va elle va crescendo Faites les études de Nikola Tesla Tesla c'est mon c'est mon, scientifique c'est le scientifique le plus grand scientifique du XXe siècle en mais l'étude du Mouref il les a fractionnés pour bañ doomu Adama yi et terewul terewul beaucoup de choses actuellement dans notre monde moderne sont des inventions de Nikola Tesla pourtant on parle pas de lui on parle pas de lui donc la technologie la médecine Nous avons Des dimension bi nga nous contrôler doomu aadama Adamaï et ils vont être contre les hommes. N'est-ce pas Oui, Salim Boumakbi, à ah oui, le Blue Beam Project, je connais très bien. Euh, avec euh, les Canadiens, je sais que ils sont dans le même, dans le même élément que ce qu'on est en train de dire. Donc, euh, et ils vont faire des apparitions, c'est programmé. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une croisade contre l'homme. Elle se passe sur quatre niveaux d'abord on veut détruire le lien de base bien nga la famille on veut mettre en opposition l'homme et la femme au lieu dans une complémentarité pour dañu bëgg actuellement contrôler l'humanité c'est-à-dire que contrôler la naissance Diouf dans ses mémoires il a tout fait pour dire, imposer la monogamie pour interdire la polygamie au Sénégal mais il n'a pas pu y arriver ndax les marabouts les religieux qui étaient là n'est-ce pas il n'a pas pu y arriver tu te rends compte li ce wax ji Macky Sall il a dit dans, au début de son mandat en 2013 il a dit que pour que le comment dirais-je plan de tout ça, plan pour que son PS puisse euh, euh, atteindre les objectifs humains il faut que les familles ne dépassent trois enfants c'est-à-dire que il faut maîtriser doom yi bu fi kenn amati lu ëpp lu ëpp dom. Et ce sont des projets yi projets c'est des c'est des pensées malthusiennes madame ku Thomas Malthus euh, te moom bokk na ci ñuy doxal actuellement à ji donc beaucoup nañ nit yi bu ñu amati doom yu limitation de naissance elle va se faire comment dañuy def tout pour def ay césarienne di jéem a césarienne xale yi ku jigéen bu bëgg am dom ni force la césarienne la nga ban jur naturellement parce que césarienne fay tax dom mën am dom yu bëri bu la xoti wat la bala nga am dom di nga xalaataat bu baax a baax balaa nga am dom ils vont encourager l'homosexualité at les les guines li pour ñom homosexuel du ñu am dom mom la meilleure manière pour lutter contre la naissance de la fécondité c'est d'encourager l'homosexualité ndax ñaari ñom du ñu am dom ils ont ils ont créé des situations xamé situation dajal deug la césarienne dajal moy la la la la la sax la PME Hmm? avec la GPA la PME c'est la procréation médicalement assistée la procréation médicalement assistée l'homme va jouer au généticien on va jouer à la génétique on va jouer à la manipulation génétique on va commander nos enfants avant nous du tout. wax on va faire de la manipulation génétique pour créer nous-mêmes nos enfants ban sexe mais on va faire aussi de la GPA ce qu'on appelle la, euh, la, la, hein, la, gestation pour autrui. C'est-à-dire que, ni que ça ne fait sortir, mais ça dure tout. Dure ça, bahul arrangé au Donc, euh, voilà. Euh, damay fay kenn pour kooku ëmbal ma sama dom, ma jël sama zygote manam ma jël sama base zygote sax ma jël sama cellule sama ovule ak sama spermatozoïde du jëkkër ñu jël ko mixer ko créer une cellule œuf def ko dans le vide bu mu xawa a baax ñu jël ko euh, poosel ko kenn dans son utérus mu porté ko pendant neuf mois après wosin ko après ma fay ko xaalis de toute façon, on va avoir des banques, de terme, des banques de jules, surtout le mariage. Il n'y aura plus besoin de se marier. Da ngay jug dem au dem à la banque ne salaamaaleykum donc je veux un enfant je veux une ovule la ovule bu nan ban jigéen mel na non une femme 1 m 80, vingt na njool na nangam dama bëgg mu xees dama bëgg bët yi bleu dama bëgg nangam nangam gars yi directement génn ovule bi ne ovule baa ngi nii facturé la 1000 dollars nga jënd ovule bi nga dem si sa médecin il va faire la fécondation in vitro nga nga jox la benn benn benn benn benn comment dirais-je benn tube na demal nga éjaculer si nga dugg dans les toilettes tu vas essayer de te provoquer à éjaculer tu éjacules dans les pouvettes nga andil ko ko mu génnee euh, sa spermatozoïde après tànnal la spermatozoïde yooyu ban la siy choisir ndax sa spermatozoïde yi ngay génnee au cours d'une éjaculation yëpp tolloowuñu ñëpp yemuñu tu en sors des millions, mais Ken a une personnalité très différente. Euh, il a un code génétique euh, peut-être euh, un peu différent. Il a une construction, c'est différent. Il Il ko mu construction ko mixel la la nga fay mu monde dans d'ici moins de 100 ans un amati donc déjà 4B 4B Bir, bot, ak euh, ak ban sax ak la il y a 4B de biir un ëmb bi batch moy liguey ménager yi il faut pas travailler à la maison euh, bot moy garder domi yi di di tey a ab jox affection xalé yi n'est-ce pas ak euh, voilà am dal daal yenn yeex ne yëpp ñu théorisé. commencé théoriser et là ce sont des élans de libération de la femme parce que en libérant la femme on va on va porter un sérieux coup à la famille démb rek maa wax dama ne gaay aduna bi nu mu mel responsabilité jigéen la. jigéen ñu yàq àdduna bi ce sole les seuls ce sont les seuls ñu yàq àdduna bi ba yàlla di bind góor ak jigéen daf leen bind pour ay bu yu leer daa bind góor pour mu sàkku wërsëg yor njaboot bind jigéen pour mu yer ndax l'éducation moo gën a important moo gën a extraordinaire góor mënu ko jigéen rek moo ko mën nest pas jigéen nag bi nga xam ne moo doon joxe éducation jigéen boobu bu demee ba ne moom amatuma temps éducation war uti xaalis ah dama war a mën a andi euh, nu mu sax Euh, xaalis na tam ci kër gi parce que li muy sama jëkkër li muy andi doyul donc là on abandonne l'enfant à lui xale bi amul ko yar xale bi ka moo ko yar dajjaa la ko yar bu ko fàtte de dajjaa moo ko yar la télé lay toog aujourd'hui dessin animé sax on on met des scènes nues dessin animé dessin animé ñu wane fóonante ci biir dessin animé y a des scènes sexuelles sax dans les dessins animés attention xale yi télé moo leen nar a yar ak des bonnes bonnes yi nga xam ne amuñu benn instruction bonnes yu si bëri ñu si bëri jànguñu alquran jànguñu école jànguñu bible quand tu baye la lourde charge d'éduquer ton enfant lu tu es responsable on passe plus de temps dans nos bureaux que dans nos familles il faut nous xam bu baax système bi aujourd'hui pour nous présenter. comment y échapper donc système bi système mu pur la soo na fàttali ne naka la faute des hommes je ne pense pas que c'est la faute des hommes les hommes yalla yarloowu len les hommes yalla fi leen wax dem len outil wërseuk ñoom ñoo wara a jabar lañu wara war jabar bu baax bu yaru bu nekk la ñu war n'est-ce pas donc euh, Sayer wallahi tu as raison il faut préserver le corps yu bëri nañu du ñu nàmpal parce que nàmpal dafay daañ seen ween du ñu sexy du ñu xawma boo donc doy na waar daal mais li yëpp nga gis ni la gestation pour autrui la procréation médicalement assistée lii yëpp c'est des c'est des c'est des sacrés revers yoo xamé euh, bande ba sax système mu dajaal bi mo koy doxal donc système mu mon bi xam ne dafa nar a ñëw pour yàq la société ci nga à terme on aura une société déconstruite hmm. société déconstruite boo amulee ku yor say doom aussi c'est difficile de pas travailler Alors ah, loolu nga wax yow faa ah loolu nga wax waaye oh, lañ ci waxtaan après <laughs> n'est-ce pas donc euh, certains hommes ne font pas le bon choix c'est vrai son affaire kiné c'est vrai euh, c'est vrai mais nag quand même Eh, ah jigéen la yàlla joxoon charge parce que jigéen yàlla ko mooñaale ak patience mooñaale ko ak grandeur mooñaale ko ak ak lu naturel mooñaale ko ay jikko yu extraordinaire jikko ji nga jigéen mooy élément central de la cité bu baaxee cité bi yëpp baax na jigéen kese moo mën defar dëkk jigéen kese xam nga mag yi wax ne si biir sëy sax jigéen kese moo mën taxaw waat ne man wal yu lay juf kese ko mën ndax su nangoo sëy def ci tout son corps et son âme yu lay am góor mënul waat loolu lu mu góorgóorlu góorgóorlu jigéen bu ko jigéen bu bu bu sabotee du mujj fenn du mujj fenn donc nañ xool bu baax a baax système bi les transhumanistes euh, le système aujourd'hui fi bëgg yóbbu en encourageant bañ doom am c'est que dañoo bëgg sax bu doom yi am n'est-ce pas euh, yéeme na trop césarienne homosexualité euh, liberté sexuelle ñu sax préservation ut ay préservatif ak lépp andi gars yëpp ne gars yi allez voilà donc bu bu leen am doom il faut limiter pilule yi euh, comment dirais-je les dispositifs intra-utérins léegi xam li gën a graaw mooy euh, li gën a mooy les dispositifs aujourd'hui accepter d'être les esclaves de celui qui accepte votre sort devant Dieu wallaay mais yooyu prépare-toi ma jël dans 100 minutes waaye nga ñëw dugg ci lii euh, Pape Babou wallaay c'est vrai que c'est la question que je me pose peut-on résister ñuy euh, wax euh, euh, au new world maanaam à la nouvelle au fait au nouveau ordre mondial nouvel ordre mondial est-ce que mën résister donc je pense que on peut en résister on peut résister mun ñu ko éradiquer de la terre on peut pas mais on résister et pour résister il faut nous dellu suñu ay cosaan suñu ay fondement te suñu cosaan ñu lenn culture la ak suñu on a deux éléments yoo xam c'est des forces extraordinaires des piliers incommensurables xam buñ ci sukkandikoo éduquer suñu ay njaboot mu nekk sur un plan macro wallaay nouvel ordre mondial du gaaw a am ndam fii ci Sénégal n'est-ce pas donc euh, oui Ndégane Sall ah wallaay li nga wax dëgg la wallaay li nga wax dëgg la sincèrement waaw ah, Dajal de son but est clair ci loolu lay dox ci loolu lay dox donc euh, attends avant may gën a dugg xaa xaama andi maje yi mu entretenir leen par rapport ak euh, Euh, di nga déjà mais des télé yëpp mais on te donne des informations sans nga yëg ko ñu ngi dox sa biir xel di manipuler sa esprit te yow yëguloo ñu ngi lay manipuler instant yi ñu ngi am jeexital ci yow sans que tu le saches à travers les médias à travers les clips à travers les films à travers tout donc doy na waar quoi asalaamualeykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ah, barakatuh yaa ustaz le très grand Madieye mais sang bi ma non le tout petit mais namm naa la lool je reste face à toi je reste le maa la raw. yaay sama sëriñ <laughs> naka mu nag. maa ngi sant yàlla bu baax na nga def. ñu ngi si ñu ngi si mbiru Dajjal. ba tey à travers ses tentacules à travers ses donc euh, ni muy doxal si ni ñuy war a peegee manipulation bi ñu war a manipuler xelu doomu aadama yi. Euh, maa ngi déglu ni mu dugal si xelu information à leur insu sans qu'ils le sachent. donc mhm. euh, à travers les médias les clips les films à travers des images yu anodins yi nga xam ne ñu ngi def une manipulation extraordinaire sur l'être nit ki malheureusement yëgu ko sax ça et donc loolu moom tout à fait tout à fait euh, yow yow gars yi la si déglu yow moom tu es un expert euh, à à toi l'antenne jox naa l'antenne ah. bi non xaaral ma ma ma ma wax ma wax len rek ni que ni li nga fi wax yëpp de A à Z même moi mhm. j'étais ébahi parce que j'avais pas mon mot à dire wax nga lépp mhm. xanaa yokk rek mais li mm-hmm. li nga war a tënk moom li nga fi tënk moom macha allah moom yokk ci mm-hmm. moom xam naa rek moom du bari daal parce que wax nga lépp daal daanaka mais euh, mm-hmm. bu ñu dee yokk dañuy wax rek ni euh, euh, mu jub jamono ñu ngi ci quoi on est à plein plein plein plein plein dedans te ñu ngi préparé xale yi ñu ngi préparé xale yi parce que xale yi li ñu gën a xam nga ñun ay mag lañ ba pare ñun moom waaw li ñu ah dese bëriwul waaye xale yi dañ leen soxla ci lu bare bare bare bare bare bare Eh, oh. moo tax ñu ngi oh. préparer xalé yi ñu ngi leen euh indi bu baax ñuy ñew té dama ragal man la future génération oh. li ñu nara doon su fekké ne parents yewu ñu ci li ñuy waxtané man pour man. Eh, mm-hmm. waxtaan yi dañ ko wara a tënk ci sujet yi ngay wax ni parce que pour man. Mm-hmm. li mo ëpp importance logis gis man pour man xexu mu mujjub jamono pour man quoi. parce que waaw xex mënu gën amul gënul am importance waxtaan bi ngay waxtaan man pour man gaay yi ñu waxtaan politique ak sen waxtaan yi wax yëpp boo leen xamul lii ustaas bi di wax fii seen politique bi hmm. dootul amati benn njariñ seeni ay wallaahi léppay daan maanaam hmm. xam ko rek hmm. comprendre nu muy doxee rek moom moo tënk loolu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp donc dafa am importance gars yi yeewu ci ke gars yi bañ a daw bañ a tàyyi parce que surtout euh, gëstu dafa am solo quoi maanaam ngeen sob tuuti comme ni ma koy faral di waxee rek ngeen sob di dem di gëstu di jàng parce que ku ci jàng rek doo yomb nax daal voilà loolu moom laa bëggoon mm-hmm. moom moom laa bëggoon wax quoi mais ci wàllu euh, dajaal effectivement nu muy imposer xam nga tout à l'heure dama def benn poste euh, ma doon mm-hmm. wax ci arut ak marut euh, gis mm-hmm. may may may expliquer foofu nu mu amee lien ak suratul al baqara la vache foofu yàlla ci waxee ci biir waaw ak ci bible bi. Euh, ma mhm. ma ma bëggoon fes wan gars yi naka ngeen mën a defee corrélation ci arut ak marut ak euh, yooyu. Mhm. Euh, ñi nga xamante ni bible bi dafa wax ni dañoo daanu ci kaw suuf ngir yàq doomu aadama. Mhm. pour wax leen ni rek ni seytaane yooyu di jumloo yeneen nit yi naan leen ñu Salomon du woon yonent ak Souleymane du woon yonent. waaw di leen nax pour ñoom ñu mën a dem jàng ji ay xërëm ak affaire yooyu noonu. Euh, ñooñu. Mhm. Mhm. depuis le temps de Babylone. ak ba fi ñu mhm. toll nii. ñooñu dañu am génétiquement euh, famille bu leen di topp maanaam seen deret. day daal di euh, ni ñu koy waxatee dañuy topp seen deret. c'est génétique maanaam embryonnage yi war nañu koy conserver merci beaucoup c'est le mot. ñëwoon démb ñoo nekk tey rek seen i doom la seen i sët la. ñooñu nag joroon ba jot ci xam-xam boobu ñoo nekk tey ji làqu ñooñu la ñuy woowee. ñi nga xamanteni ni hmm. lañu wax bëgguma ko di tudd trop parce que le nom est trop péjoratif mais les Illuminati parce que pour moi ils sont pas hmm. illuminés ah donc. Euh, hmm, ñoom les. Illuminati les enténébrés les enténébrés. wa exactement. ils sont dans la ténèbre et enténébrés mungo quoi parce que illuminé c'est trop les flatter quoi te bëgguma les flatter quoi. donc euh, ñoñu gaay dañ leen di jaawale ak euh, la famille Rothschild ak les Rockefeller et tout machin man leen ñooñu c'est des pions ñoñu ñep c'est vraiment juste des gens qu'on a mis au devant de la scène pour tromper la masse exécutant exécutant et rek parce que ñuy hmm. def deug duñu scène sen karam, duñu sen hmm. hmm. ils sont ils sont dans l'ombre parce que c'est c'est Illuminati illum. le mot illum en hébreu yo mi def euh, langue di nga comprendre aussi que illum, ça veut dire le caché. effectivement ça veut dire le caché. donc du coup Illuminati aussi signifie signifier ceux qui sont cachés aussi quelque part donc voilà mm. et il y a des familles hein. les gars yu mm-hmm. donc des mm-hmm. gens qui sont cachés et qui mm-hmm. euh, se servent de de leurs marionnettes comme les les les Rothschild les familles les Bilderberg Bilderberg les Rockefeller hein qui sont en haut de la finance euh, voilà qui gèrent justement le marché Mungok dans les médias ñuy gèrent l'eau. yëpp quoi ñoñu do leen gis ñoñu nak ñoo yoré xam-xam su bon si ñaaw si bobu làqu woon le livre mm-hmm. de Souleyman avec ses écrits ses savoirs xam nga dañu mm-hmm. histoire dafa nettali ni reine d'Angleterre bi da ko dié récupérer avec sa famille et tout ça et mm-hmm. et et il s'est associé avec ces savants là mom la ñooñu al Baqara du wax man su may dégluwaat euh, avec tout ce que je sais di liiraat al Baqara damay damay xol bu baax mais ñooñu la hein? gis quoi directement deug la ah la waaw ñoo yo yooyu lay gis quoi duma ma gis Serigne su si ma mën yeeg xam nga waaw gars yi gars yi ndaw si ñu may woowee cuune yi. charlatan charlatan yi. charlatan yi quoi xam nga <laughs> ñooñu ils ont pas le truc ils ont pas compris que le monde est trop trop trop trop bizarre que gars yi mmh. affaire bu dëgër la ñu yore boo xamante ni. Euh, moom nga fi mmh. tënk léegi mooy li nga wax ci wàllu mmh. art wax nga ko léegi. mooy li nga wax ci wàllu justement euh, euh, les les bébés qu'on va fabriquer dans le futur léegi ëmb dootul amati li fi junj yëpp yëpp yëpp yëpp c'est de la science occulte maanaam. Euh, ci mmh. xam-xam yooyu la jóge parce que dafa mel ni benn sort bu ñu mmh. bu ñuy jeter humanité bi yëpp bu ci ñëpp jàppee rek takk ci rek seytaane daal di gaje bu ci ñëpp jàppee rek bu ñëpp mmh. nekkee ci loolu rek ku ci nekk topp li leen li leen seytaane tegal maanaam jigéen ñi léegi nga gis leen ñu commencé di jàmbat naan bëggatu ñoo ëmb wa léegi am nañ beneen façon bu ñu mën a juree doom ak affaire yooyu xam nga doom bu ah judduwul ci biir yàlla du def leeram ci doobu doom lu doom bu juddoo feneen ci beneen bërëb bu ñu koy sàkkee foofu moom xam nga dina xaw a doy waar leeru yàlla ñoo àgg foofu daal waaw gis nga léegi bu ñu demee ba ñun ñii ñëpp ñun góor ñi tamit commencé di xalaate ñii ñi comme ni nga ko waxee sànq mooy les afrocent les pas les afrocentristes les eurocentristes mhm. parce que ils ont encore nga ko sànq ne dañu bëgg a gisee monde bi de façon occidentale bu ñu demee ba topp leen ñoom parce que les occidentaux mhm. ne sont autres que les les les mun naa ko wax les les allez les chiens de garde de gars yi ma bañ a wax seen tour ñoom c'est mhm. juste xam nga les pions devant donc bu ñu demee ba gis ñoom seen plan bi ñu bëgg a fësal ñu bàyyi ko mu fës. mais mhm. waay comme ni ko Faa Diallo ni ma ko bëgg a waxee si sa Faa Diallo naa ko. système bi lenn rek la. soit nga bàyyi ko. Mhm. jàpp ci yàlla. Mhm. soit ñun ñëpp ñu nangu ne ay jaamu système bi lem te nangu suñu soog devant suñu borom. kese loolu moo fi nekk dëgg la. moo fi nekk fi moom amatul dara dara dara dara amul damay liggéey su ma liggéeyul du ma lekk amul damay dama su ma liggéeyul du ma am oto amul su ma liggéeyul du ma am yére amul loolu yëpp suwaay système bi soit ngeen bàyyi ko mu daanu il y a d'autres moyens de travailler y a d'autres moyens voilà faut juste mm-hmm. réfléchir à d'autres moyens mais y a d'autres moyens mm-hmm. de sortir de ce mm-hmm. système maintenant si tu fais partie de ce système et tu veux travailler pour ce système système à un moment donné sa carte crédit carte bleue assurance sa tout à un moment donné ils vont t'imposer ah, un mode de vie boo ko deful dooñu la dundal duñu la jox xaalis duñu la jox am assurance maladie doo faju do def dara dëgg la c'est simple dëgg la soit nga def li ñu la wax bu ñu hmm. demee ba la li nga tak puce dina la tak puce dina nga di nga dugal puce sa poche ndax salaire ba ngay jot parce que c'est RFID ya gis technologie RFID déjà il y a des boîtes qui l'ont qui l'ont adopté avec la technologie li nga xam ne on mais xoolal xoolal Oustaz mais xoolal Oustaz nga nek sa entreprise di liguey sa patron né la carrément Euh, dañuy mm-hmm. changer carrément léegi ni ñuy euh, répertorier nombre d' employés ku bëgg a garder sa mm-hmm. liggéey wala léegi il faut que ngeen mm-hmm. def puce bi seen yaram pour ñu mun leen compter ngeen mun a comptabiliser toujours euh, tous les matins bu ngeen ñëwee di liggéey xam nga yow liggéey boobu rek nga am ça fait vingt ans yaa ngi liggéey foofu moom moo lay dundal moo lay dundal kër jox la say crédit oto yu kenn xamul xam nga effectivement waaw léegi bàyyi liggéey boobu tey ji nga xëy amatoo loo lekk loo naan ko xam nga du yomb ci ñu bëri ñoo xamante ni dañu takk si système wóoluñu yàlla ñu wóoluwul yàlla wóoluñu yàlla te système bi rek lañu am moo leen ni dundal mhm. te xam nga kooku noonu mhm. boo ko waxee loolu tey jii danaa la ah man de j'ai pas le choix je vais aller me mettre la puce comme ça au moins j'ai mon salaire qui tombe tous les mois parce que je serai à mhm. l'abri moo tax euh, affaire bi gon doon affaire bu grave moo tax quand quand quand di dellu si waat si suñu euh, li nga xamante ni mooy suñuy gëm-gëm delluwaat suñu cosaan euh, pas euh, côté ni comme ni ma ko bëgg a waxee ni yenn kémiti kémitistes di waxee les les les extrémistes là mais euh, comme ni nga ko mhm. expliqué rek y' a pas meilleure mhm. explication que comme tu l'as expliqué dello ci mhm. suñu euh, dello suñu bop si nga xamanteni mom lañu mom bayyi moom ak li nga xamanteni mom lañ leen wax ñu jiital ko parce que ñi dañ leen a du ñom sax ñu parce que ñom sax arrangé wu leen mais ils ont pas le choix ils ont le couteau sur la gorge

ma ne il faut nga leen tudd leen tudd nag il faut nga tudd leen. <laughs> waaw mais xam nga damay bañ a kii kii xam nga. <laughs> xam nga ah, mais dafa leer dafa leer. <laughs> mais en tout cas en tout cas ñi ñi nga xamante ni xaw nañoo sob tuuti rek. je vous conseille mhm. vivement vachement le livre euh, comme ni ma ko yàgg di waxe xam wax aussi. le livre de de de Enoch le livre de Enoch il est très important pour euh, ñi nga xamanteni bëgg bëgg gis. Euh, et puis surtout surtout amna ben livre bu partager sur sama page Facebook ñaari livre la mhm. la magie dans les terres islamiques justement au Moyen Âge Avec la magie en terre juive mhm. chez le judaïsme. juifs yi naka magie di Hmm. Euh, ci boobu livre boo ko liiree di nga dem ba xool ci gis si en fait les grandes familles qui gèrent justement l'occultisme de la Kabbale bi nga xamante ni moom moo nekk ci gannaaw. Euh, hmm. gaa yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp noonu quoi. donc bëgguma hmm. gudd nag. bëgguma gudd mais man dama lay déglu parce que di nga ma jox aussi ay ay ay bagages yu ma mën a. yokkee sama samay samay recherche quoi mais en tout cas en gros man de sama dernier message mooy lii quoi. mooy jël leen système bi ngeen bàyyi ko xoolal rek bu ñu defee lii ñun ñëpp ñu jugandoo. kenn bañati di dem liggéey ñun ñëpp ñu toog liggéeyatuñu ñoo bañ liggéey tuñu pour système bi yéen ñëpp bu ngeen jugoo xoolal bu àdduna bi ñëpp jugandoo rek bàyyi entreprise yëpp ñëpp toog seen kër kenn dematul liggéey mais lépp daanu parce que ñoom xaalis moo leen dundal ay seen i jaam yéena leen di dundal bu ñëpp toogee comme château de carte ay mmh. daanu suuf dara dootul taxaw mais ñun on est là pour on est là ñu si bëri ci ñun dañuy bëgg di liggéey liggéey pour lan jënd ay matériel yoo xamante ni soxlawuñu ko pour Euh, merloo ce ce voisin bi wala tangalo xol ce voisin rendre jaloux quelqu'un ou machin alors que li nga li ngay jënd sax soxlawoo ko ah. c'est ça pour te divertir tout simplement alors que soxlawoo ko mais au fond bàyyi len mu daanu mm-hmm. ñu jëm xool ci yalla dem mm-hmm. xool jëm a bay dundee ñu bay dundé bok touti ba xam nu muy mm-hmm. joxe parce que on l'a pas fait jusqu'à présent amna yenen méthode voilà légui nak ñom dañu bëgg limiter wax ñu ne en fait la réflexion est justement euh, eurocentrique et elle n'est pas diverse c'est-à-dire que mënuñu euh, am yeneen façon wu xalaat mm. bu dul ñoom xalaat bi ñu fësal te loolu du dëgg am nañ yeneen mm. façon xalaat comme ni ma ko ni ma koy waxee aussi ni am na aussi euh, modèle économique l'islam mm. am na modèle économique l'islam am na modèle économique boo xamante ni mm-hmm. buñ ko développé dinañ mën a génn ci mais parfaitement politique bo xamanteni ni dinañ mën génn ci lii parfaitement buñ ko booleeg ñi nga xamanteni ñun ay ñun ci ñu leen ñu delloo

Ça, ça ah, m'a fait plaisir de participer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et qu'on n'a pas, on pas dialogué. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. maa ngi lay remercier bu content a baax. jaajëf kontaan euh, pour les autres là pour vous qui qui qui qui êtes venus que déjà qui c'est le grand Madjey donc euh, peut-être que vous le connaissez am na ñoo xam majoritairement xam nañ ko ñoom Faye ñëpp xam ngeen ko quelqu'un yakuza machallah ñi ko vous pouvez le chercher page Maji, Madjey Madjey ndeysaan mais machallah donc euh, il est excellent et il a compris les les les aléas du système et je vous conseille vivement d'un rôle page il partage tout ce qu'il sait il a beaucoup lu euh, ku il a pris son temps gëstu bu et wax il le partage à cœur joie donc euh, big up à toi Yassidi donc di content si si gars yi ma jey sama mooy sa sama sama donc pour dire que le système aujourd'hui qu'on a en face donc euh, ñun on a un modèle bi nga l'islam ak le christianisme yëpp mais yàlla bàyyiwuñu yàlla mun ñu créer y ñu si kaw qui a pare pare laisser ñu nii comme ça là non donc c'est pas possible Dieu a prévu un système juridique et judiciaire euh, civil et pénal politique et économique social et culturelle bi nga xam ne doomu aadama yi mën nañ ci sukkandiku euh, jàpp ci ba pare mën a am euh, saadatu daare ni maanaam am ñu euh, te sax le bonheur dans les deux mondes maanaam le bonheur ici-bas et dans l'au-delà donc wax dëgg yàlla il nous faut retourner à ce que nous avons je dis que ñun dañoo am diine l'islam am diine christianisme muy benn dañoo am suñu culture avant diine l'islam di fi ñëw ndax ñun fii tumuraankew ñu woon diine julli la ñu jàngal rek julli ak woor lañu jàngal mais jàngalu ñu baax ndax fii baax mu ngi fi woon ngor mu ngi fi woon yiw mu ngi fi woon fii y a beaucoup de valeurs fi nekkoon donc ce corps de valeur la qu'on avait de nos ancêtres n'est-ce pas sincèrement de gis naa ko war a jël réapproprier waat ko mën koo doxal ndax on peut pas se développer ni avoir l'épanouissement sur la culture et les pensées mu mënu jël ay waxu ñeneen ak ay seen xalaat bëgg sukkandiku yaa xayti loolu doxul loolu mënul dem donc yal ni yàlla defal tawfiq inshallah allah Mr Khadim Khadim jey ah tey moom c'est vrai que tu es en retard hein donc wallahi dara jàllo inshallah allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam model model bu parachevé non c'est un model parachevé donc c'est un modèle bi nga xam wax deug yàlla je le reprends maa koy maa koy maa koy reprendre dans mon ouvrage sur le sur le CFA sur un modèle alternatif bi nga xam qui est adossé à un paradigme théiste un paradigme bi nga xam purement religieux parce que ñun yàlla lañu am yàlla nag bàyyiwuñu bàyyiwuñu te dañ ko ñaan ne ko euh, jox ñu fi duniyaa xasana ak fil aaxirati xasana wa xinnaa azaaba naar ñu lañ ko ñaanoon ne ko yàlla aatinaa jox ñu fi duniyaa fii ci kaw suuf xasana baax ak yiw wa fil aaxirati xasana jox ñu tamit alaaxira xasana wa xinnaa naa naar te nga mucc ñu si ci ci mbugal mbugalu safara donc mbaax boobu fii ci kaw suuf yàlla moo ñu ko dikk te yàlla jox nañu ko wax dëgg yàlla jox nañu ko ñun nag ñoo ko tànkam bëgg def leneen

que je veux partager d'ici peut-être début d'année je veux que janvier bien avant les élections pour avoir l'implication impliquer nos candidats là pour nous wax si parce que les candidats modèle de bi le modèle c'est un modèle décadent c'est un modèle bi le le libéralisme modèle bi nga échec échec le consensus de Washington round Uruguay sax il va falloir ñu avoir, une petite dose d'humanisme et de social dans le dans le libéralisme pour dire que sax donc on n'a pas à prendre des modèles voilà le grand lord ah qui c'est moo jarbat moo jarbat adoré lord bex denga nga ma ji donc euh, allah nit ku bax gi ni nak nit ku dox ci yiw di dox ci bugul aduna bi kenn am malentendu wax deug yalla Mohamed Bachir waaw ah, waaw dix minutes kay donc euh, ma la wax tollu ah ya seda Aisha, ya sama coach mu ngi coach yow apri wax après inbox ki mom sama coach la ki c'est ma coach sama kii moom Aïcha nag macha allah Aïcha moom nit bu spécial la ah elle est exceptionnelle wax dëgg yàlla yàlla na yàlla sàmm ko yàlla dëgëral ko yàlla gën ko yokku taxawaay nit ku bëgg diine ngi nii nit kuy dox ci lu baax a ngi nii wax dëgg yàlla man saa yu koy xool damay kontaan wax dëgg yàlla donc euh, waa xam sa diine yëpp da lay bëgge donc yàlla na yàlla sàmm la donc yàlla defal la tawféex eh Mister Roger ah Roger Ibrahima kii c'est mon c'est mon pote ça c'est mon frère waaye Ibrahima euh, Bachir Bachir maa ngi lay woomee demul de donc demulaa malheureusement donc il y yalla yalla gens qui sur sur la waqf oui la waqf est quelque chose de très important par rapport au modèle économique xamal déjà la waqf déjà les plus rëy lu l'islam def ils l'ont fait avec la waqf n'est-ce pas les universités des hôpitaux et mais là, on signé ñëwaat dans le modèle économique Inshallah. donc content euh, naa trop nag wax dëgg comme que sama temps bi jeex ah, article mais on va revenir sur Dajjal troisième et dernière partie bien on va parler de Adaba, la bête on va parler de Jérusalem et de sa de sa dimension dans l'islam parce que Jérusalem est une porte extraordinaire dans l'islam on va y revenir on va parler de euh, Isa ibn Mariam parce que ba léegi laalaguma débat boobu man je parle juste de Dajjal instant yi ñëw naa si Aljassasa ñëw naa tey si Gog et Magog mu Yaajuuj ak Maajuuj donc macha allah donc euh, on va continuer parce que euh, eschatologie c'est très important il faut ñu maîtriser bu baax a baax ce que Dieu nous dit que moo war a am à la fin et que la fin est déjà commencé na pare ndax am na ñu bëri ñoo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaan yàlla ne ko xeetam euh, ñaan na ko rek 2000 ans la ko ñaan 2000 ans Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu laaxook léegi ëpp na 1400 ans il fait moins de donc euh, moins de 600 ans donc Aduna bi wax dëgg de dafa jeex pare on va des choses yi xamante ne sama waxoon na pare donc euh, ah yéeme na Il est na donc qui euh, ma la question on me pose une question liée, di ma wax waxu réchauffement climatique le réchauffement climatique benn naxasaale kese la naxasaale bu mag la tu sais il y a am trois postulats yu là. Il y a un postulat, c'est des postulats qui ne sont pas réellement ça donc toutes les activités humaines les activités humaines dégager des gaz à effet de serre et le gaz à effet de serre baaxul pour l'atmosphère ou àdduna il faut voir déjà gaz à effet de serre mais gaz yi xam faire dafa am trois trois atomes au moins trois molécules mais atomes, c'est trois molécules wala le nekk deux deux ut soit trois atomes ou bien deux molécules distinctes par exemple le CO2 effectivement CO2 il y a trois atomes effectivement euh, effet de gaz à effet de serre mais H2O donc si moom effet de serre c'est un que gars qui war nañu n'est-ce pas O3 ozone O3 il y a trois atomes effectivement effet de serre c'est un gaz à effet de serre donc tu vois, qu'est-ce que le gaz à effet de serre ak euh, euh, euh réchauffement climatique li moom bëgg naa si si live bi di ñëw naa mais sachez que on parle en termes de ppm de pourcentage par million. La disposition sur l'atmosphère, il n'y a pas de CO2. C'est l'atmosphère là, elle est composée majoritairement voilà, d'azote à 78%, n'est-ce pas D'oxygène à 21%. Donc euh, voilà, euh, oxygène Mais est oxygène à 21 1 à d'argon n'est-ce pas d'argon donc aujourd'hui euh, on calcule le ppm on calcule le CO2 par ppm par pourcentage par million. Et actuellement, nous sommes à 400 ppm. Ah, nous sommes, beaucoup 1%, nous sommes à 400 ppm. cest à 400 sur 1 million de, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, il y a une cela parce que le corps de la Terre, là, il y a le, tourner, elle a des manières de se réguler. Et Dieu l'a créé. Nous avons enseigné que nous avons tout le champ électromagnétique de la Terre, nous sommes désintégrés, nous sommes désintégrés il est connu que mon le noyau de la terre perd plus de 25 degrés chaque 1 million d'années. donc il y a il y a lu en en en donc euh, Masha'Allah. Bamba Diagne euh, ce que tu peux dire c'est quoi un Rauhan ah, il me reste encore deux minutes hein. Rauhan, c'est c'est une entité euh, responsable de secrets. bu yàlla dénk bu le dénk ay secret donc les Rauhan, en réalité sont des sont des entités qui sont aussi dans ce qu'on appelle al-batin, dans le raïbou. Ils ont été créés d'air, n'est-ce pas Et donc, ils veillent sur les secrets. Donc, quand les gens disent donc euh, du doxal ou batin, ils interagissent directement avec les gardiens de ces noms là gardiens de ces noms là Moutou Rawhani. donc ils sont attirés par des encens ay Il y a ñi yëngu ci wàllu baatin xam ne ay mustaqa ay ay oud ay hodil hind ay yëpp kay xam nañ ko yaa yi nga xam ne qui attire ces gens là donc voilà euh, xam naa ne du ma ci guddal donc euh, donc euh, macha allah donc eh sama gars yi ah Barham Diallo waaw waaw c'est vrai que y a des déviations nag ah li li wax dëgg de les confréries ñi ko fodde woon maanaam koy xool xoolal Sénégal ñi sampoo tarixa yi fii Sénégal ñoom ñoo defar diine Sénégal ñoo defar diine bi ñoo xeexal diine ñoo fi defar ñu fi nekk ñoo fi defar waaye actuellement seen ay njaboot yu bokk si ñoom ñoo nekk actuellement di yàq liggéey bi nekkoon def te nu koo yàq sax waaye ñoo nekk saa di def di ramer à contresens par rapport ñoom ñu jàngale donc il y a des il y a des il y a des jadd-jadd c'est vrai il y a des mais nañ ko jël askanee ko doomu aadama yi et pas yi la religion musulmane elle est parfaite les musulmans ne sont pas parfaits nag boo musulmans, musulman bu def nak suuf noonu bu ñu affaire bi islam dañ ko askane le musulman tarixa itam les tarixa là elles sont parfaites donc mais les disciples dans ces tarixa là mais ils sont imparfaits c'est des humains et donc les failles et les fautes que feront ces disciples là mais qu'on l'attribue à ces disciples là et non au tarixa donc livre c'est très important donc euh, machallah tu as entièrement raison Serigne fi diar yëpp ay sunnit kaamil lañu ay hafiz wir ay ay ay ay ay machallah allah ñu ragal yalla ñu fegu ñu wolu yalla ñu am cër ci yalla ay walu yalla donc euh, wax dëgg yalla bu ñu jéem a seen par ay benn benn bi nga xam ne des brebis galeuses yu nekk seen bir mbolo donc euh, voilà euh, actuellement nak ça commence à devenir une mafia ça commence à devenir une mafia parce qu'ils ont ils ont aujourd'hui il y a une mise des politiques seen biir waaye nak il doit se ressaisir xam ni ancien sëriñ amul sëriñ bi retraité amul nous serions yi sen sen place ak seen taxawaay nañ fi taxawal diine ba pare nekkal fi ñëpp donc euh, donc oui na quoi yéeme na waaw et si si loolu kay c'est intéressant kooku kay on va en parler parce que laayeen ñi a na gars yu bëri laayeen ñi moom dañoo jommal gars yu bëri fii Sénégal wax dëgg yàlla donc euh, mais on va discuter yow nañ si wax n'a jël après une box ñu waxtaan incha donc on va le préparer bi on va le faire cette semaine sax peut-être pourquoi pas ñu sommes tey lundi jeudi jeudi le vendredi on fera une autre beneen live parce que mbiru dajaal yeeg aaxiru zaman bi man di mbir bu intéressant bi xam ko wara di waxtaane on doit se conscientiser davantage ku nek ñu partager expérience et ça va rendre conscient ku nek mën delu ci si ci ay domam mën xol lu mu leen mën jox ndax nous devons éduquer nos enfants les préparer par rapport à ce système là ce système je vais dire dajalique système bi nga xam wax deug Yalla qui sera contre toutes les religions donc euh, machallah. waaw soxna Aïda Badji yaa Aïda Barchi xool moom moo defar affiche yi moo defar lépp ba pare na defaraat lu bëree bëri mais ça c' grave moo ma xot sax ne ma yee eh, génnal il est 22 heures passé donc moo ma xot fekk ma ma ma atta commencé live mais yow sax na Aïda yow naa alamaana ah. <laughs> donc si Alioune Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax Mister Roger laay sëy

dafay dafa am lu bëri lu muy doxal ci système bi ak nu muy esclavagiser jamono bii doomu aadama yi donc yow tu as beaucoup de pain sur la planche ndax yow li nga xam yëpp amoo droit toog noppi donc mais bëggee naa leen ñëpp macha allah ñoom soxna fa sëñ Moussa Moussa sa livre bi après naa jokkoo ak Baaba incha allah donc ziar naa bu baax ñoom Khady Dija Aline Fall yàlla na yàlla defal ñu jàmm wa axiri daawa naan alhamdulilah rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu